ci ñu bëgg a jot jamono ji ñuy def waxtaan wi. xam naa bu dee mi ñuy bàyyi xel ñu fàttali ne ko gannaaw 9 jot na fii ba midi bu mënoon a bañ a woote suñ téléphone yi bopp yi mooy gën lu ko mooy mën naa woote am yum ci def te du tax mu jot ñu. tabarkalaaw jërë ngeen jëf kon ci nuyoo yu am solo yooyu jërë ngeen jëf ci présentation boobu nga xam ne def ngeen ko ci jotaay bi. di nuyu mbalam ñu dëkk réew mi ak ñu nekk bitim réew tabaaraka taala ñu leen asalaamaaleykum waa Seras nga xam ne ñoo nekk foofa di jaay yàpp yéen waa Seras yëpp asalaamaaleykum ña ca biir di tong-tong ak ñi ci bitti di jaay ak ñay saam ak ñay dibeeg ñay def yëpp yéen waa Seras yëpp asalaamaaleykum imaam Fall imaamu jumaa ja asalaamaaleykum alxaas yéen waa yëmbal ak waa benn barak tabarakallahu asalaamualeykum ak waa tali bu xonq Malika Palace asalaamualeykum buun ak ruut da buun yéen ñëpp asalaamualeykum Bargny ak Tëngéej ci yéen itam asalaamaaleykum ak waa jam ñaajo Grand Dakar Grand Yoff asalaamaaleykum ak Grand Mbao Mamor Dia Padois asalaamaaleykum Oustaz Alioune Mbaye mi ngi lay nuyu Serigne Mbacke Sylla mi ngi nuyu nun ñi noo ngi lay nuyu nun ñëpp ñu ngi lay wax asalaamaaleykum saa si mbuub te saa si mu nuy euh, raay yéen ñi ci bureau yi takk seeni Walkman wala ngeen jàkkaaroo seen ordinateur te ànd ak ci alkitab asalaamaaleykum yéen ñi nekk ci oto du xëy moo xam oto bi ngeen nekk particulier la moo xam kalandoo la moo xam taxi moo xam oto bu mag asalaamaaleykum yéen ñi nekk ci station yi te synchronise nu tabaarkallaa yéen itam asalaamaaleykum kola baax nag li ko wër asalaamaaleykum ngeen xoole seen mënta neuf heures jot na ba teg seize minutes kon damay jël si ci studio bi daan ne oustaz Alioune asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah daal ni oustaz Mbacke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. daal di boole nuyoon nag waa bitim réew yëpp ne leen asalaamaaleykum. fa jazakumullahu wa akmalta wa na macha allah yal na yàlla def ci baatu ba boobu. li mu ci diggee yëpp ci ñooñu ko ko wax. yow mi ko wax. allahumma amiin. jàmm mi jàmmee bitim réew. yaakaar naa sëñ bi nuyoo yi matale na Mbàkke wallaay wallaay matale na mataleeti na <laughs> dugg na ci ruq-ruqaan yëpp ñooñu mu jot a jukki yóbbaale ñi ci def ñi naan ah tey de moom oustaz nuyuwuñu waa lu tax duñu nuyu kon ñi mu nuyu rek moo yóbbaale ñëpp ndax buñ bëggee nuyu ñëpp ngoon jot duñ matal waaw ah, dëgg la de am na ñu daan ñax naan tudd ñooñu dañoo fàtte ñun waa ñoo ngi leen di nuyu ñëpp ak ci biir incha allah jërëjëf tubarkalla tubarkalla oustaz na nga fanaane maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. alhamdulilah tubarkal ni ko weekend léegi semaine bi. waaw weekend bi de dem na semaine bi jeexagut. Hmm, ndeysaan yal na dem ak jàmm te nu fi ci jàmm. allahumma amin te buyul si fekkaat ñu fi. amiin yaa rabbal aalamiin sëñ Mbacke yàgg naa ni. waaw moom koy tubarkàlla. <laughs> waxtaan bi moom da ngaa wenn wenn ratal la war a doon war Maodo Faye. ndeysaan tey da ngaa takk ay weer yu garaaw moom xam nga xam nga loo ci jublu nag. <laughs> man de bu dee si sa garaam bu tey xaw na ma la daal. <laughs> waaye yow waxuñu loolu kay. war na am ay caméra de. ndeysaan. yow ay ca bisimilah. Ah, caméra yaa ngi ñëw. Ah, mi ngi ñëw écran yaa ngi ñëw. est-ce que antenne yaa ngi ñëw. macha allah incha allah. amiin yaa rabbil aalamiin. Mhm. yal na ñëw jàmm. amiin yaa rabbil aalamiin. te fekk nu fi. amin amin amin yaa rabbal alamin bi ni ñu koy bëgg a doore mooy doore ko rek ci li nu nekkee ci semaine bi yëpp ñetti fan boobaak léegi daalaata ba léegi guddi talaata jàpp àllarba mooy tiis bi dal ci askan wi dal ci réew mi muy Mawlaana Cheikh Sidil Maxtaar yal na yàlla yokk ngërëmam fa mu nekk allahumma amiin dàqal ko fi mu jógee. amiin te déddoo ñu jàmm. yàlla wutal ko ku ko gën ci ñun. Mm-hmm. may ki wittal wu gën ñun ci moom fa mu ne. yàlla gën foofu ca moom yàlla gën ci ñun moom fii ci ñun. Mm-hmm. su defee xam naa li ci gën a rafet rek sa te ñu seetloo gum ko mooy li mu fi bàyyi woon muy symbole di jàmmi këri daara yi. dañuy commencé gis démb seex sëñ sëñ Bay si Mansour loolee mu def ànd ak njaboot Alaaji Malik gépp dem fa loolu de oustaz yaakaar naa ne lu rafet la. alhamdulilah jërëjëf maa ngi lay fay nuyoo di fay nuyoo Serigne Mbacke. di nuyu auditeurs yëpp ci biir réew mi réew. ni nga ko waxee léegi lu am solo la. talaata ba léegi yéen a ngi ci. jamono ji nit ñaa ngi ci yoon wi. ilaa Tuuba ngir ñaanali ko ngir gunge ji ko ngir ziyaare ji ko rahmatullahi alayhi euh, sunu borom nag junj nañ ko biig maag sëñ Mbàkke wa naktub athaarahum la ca teg te lu nekk lu nit nekk lu ne sunu borom nee na boo doxee wut si ma mu waax wut si la kon su fekkee dangaa yëg ne ñaari farata rekk na ci pénc mi fardul ayni moo fi nekk ak fardul kifaay te sunu borom xëy na fardu ñor na ko waaye ni ko fardul kifaay ñore moo ëpp fardul kifaay nag mooy li nu yàlla def loo nun ñëpp fardul ayni ni mooy li muy def loo individu bi waaw fardu ayni mooy li muy def loo individu bi kenn nit ki fadul kifaay nag mooy lim nuy def loolu nun ñëpp nu war a ànd def ko bu hmm. fekk Cheikh Sidil Mokhtar dafa am pédagogie bu toll ni mu ñëw hmm. mu wóor ko ne mi ngi liggéey ci fardu ayni hmm. mu bëgg nun ñëpp nu ànd ci fardu bi mooy woote doon woote ba dem ila rafiqil aala yëg na ñëpp nañ ànd ci fardul ayni bi fardul kifaay bi te mooy li nu yàlla sant nun ñëpp nan ànd def ko ndax yàlla bàqara ba naa si buy santaan yox yàlla la si na daal ni amanu na amanu kon ñooñu mbooloo lañu def leen nàngam wala bàyyi leen nàngam léegi nag loolu ànd def ko mooy mën a nekk ànduñu duñ ko mën a def boobu moom dañu mën a ànd def ko waaye mënuñoo beru pour def ko sëñ Mbàkke si la fi ne mënut a julli ajuma moom képp dong gott yàlla du ko nangu fokk rek mbooloo am lu woote boobu mu woote nag ci la ko ci la ci la ko yàlla xiir jaral ko solow dàllam di ci wax ba ni mu sàngoo suuf barki démb bi muy tàggu kenn ca waa kër ga dafa waxtaan ak moom ci laay jooj def na ko wa aaxiru daawaana añ alhamdulillahi rabbil alamin lu muy tekki wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin lu muy tekki noo ko am mbàkk loolu di ab tëj lay tekki akub tijji daanaka looloo doon ay seen kàddu yu mujj wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaw wax ko ca ña ko jege lool lu muy tekki ko am mbàkk loolu di ab tijji lay tekki ab tëj ab tëj li tijji ab tëj lay tekki akub tijji waaw <laughs> mu cell woote boobu nag la Cheikh sëñ Baye si Mansour al Khalifa wuy si mhm. woote boobu la wuy si mhm. kàddu yu mu fa yëkkati di taaral loolu di yoon wu ubbeeku it mhm. mu ne it fa suñ ko yéene yemale ci lu metti dal ci suñu kaw nu jóg def ko ëllëg lu neex mën naa dal nu jóg nun ñëpp nu def ko jéego yi daal ay jéego lu ñu tàmbali te fas ko yéenee continuer. ci est-ce sunu borom mi bëgg nu bennoo nag. lu mel daf koy saf lool. Mhm. sharia mi bëgg nu bennoo lu mel noonu daf koy saf lool. mag ñi bëggoon ñu bennoo it. lu mel ni daf leen saf lool. ndax mag ñi ka danoo jàppoon ne ñoom ñëpp ay jawrin lañ. Mhm. ci toolu sallallahu alayhi wa sallam. lañ jàppoon. Mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk jàngale nga ne. nun li ñu yitteel lépp mooy tool yonent bi set sallallahu alayhi wa mm-hmm. mm-hmm. sunu borom nee na moo koy malaakaam lun teel a teel a xëy tool yonent bi fekk leen fa mm-hmm. lun teel a teel a xëy fekk leen fa inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi kon nag nun xëy na nun ma maag sumay malaaka <laughs> fekk leen ma fa yaa fekk leen ma fa <laughs> Sëñ Fallou moo ko daan jàngalee noonu rahmatullahi ali <laughs> kon nag Oustaz Alioune mhm. loolu lu marqué penc mi la mhm. lu penc mar di waxtaane la mhm. lu penc war a encouragé la lu penc mar a dund la waaw am na solo loolu tabaarakallah kon nag loolu liggéeyam bi nga xam ne ci la nekkoon suñu borom fokk moom tam mu wan ko wan ko ko wan ko penc mi yëpp ndax waxul i'malu fa sayara llaahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuun sunu borom nee na liggéey leen rek liggéey leen rek danaa ko gis mu ne ñu mu ne man nag su ma gisee wane ko yàlla mu ne moom su ko gisee wane ko waaw waaw wa shukran ci sa laaj bu am solo bi. Mm-hmm. ci sa tàmbali bu am solo bi. jërëjëf ñoo leen di jëfal yi ak sëñ Mbàkke si laag mboolem organe de presse yëpp nag. nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi. Mm-hmm. waaye daf ci am yooyu suluñe ko ci feeñal ko ci sëñ Mbàkke dafa am solo lool. Mm-hmm. dafa am yooyu sulu su ko ci. rëdd aw rëdd ci suuf. daf ci am solo lool. yëpp am solo nag. waaye ab texte ñaare da ngay fekk texte bi. nga gis baat boo xam ne dañ koy suluñe. du dëgg mhm. ba demee ci ñoom professeur Iba Der Thiam ak ñoom Maodo Maodo Touré mhm. rahmatullahi alayhi mhm. suñu masaan di liir fi ngay xamee na ñii ñi ngi liir dañuy wut benn big bu nekk couleur di ko noté di ko annoté fi ñu toll téere boo dugg gis ñu def ko rek yëgal na téere bi liir nañ ko waaye fa ñuy toll te xam ni fii jar na koo def danañ ko xoteet ah lii de moom jar naa souligner ba ëllëg boo fi rombee waaw événement bi loolu daf ci am lool. Mhm. te bëri ci nag lool tabaarakallah. wa sukran ci sa tàmbali ba am solo bi. jërëjëf sukran tam si am solo sëñ Ba xanaa bala may joxat eh, oustaz biir eh, waxtaan wi xam na mos naa dégg si yow xam ci gan yu ma dalaloon ñu wax ni sëñ Tuubaa dafa ni waskur yoo dégg ci alquran maanaam di waskur yi bàyyi na. waaw ah. waskur fi kitaab Ismaïl. waskur fi kitaab Idris waskur. mu ne fekkoon na alxuraan desoon na war a wàccoon. Mhm. bis dana jot ñun wëskul fi kitaab bi sëñ Touba. Mhm. waaye est-ce que yi itam see Seex Sidil Maxtaar mii. Mhm. bu fekkoon alxuraan des na tey doo du ñàkk mbës nga dégg wëskul fi kitaab bi Sidil Maxtaar. waaw xaayaan ko dégg séeréer. alayhi xam na ne bari du seen morom. fi mu ko tegi tegi fu ñu bari. kon buy liggéey mu ne ko. li ngay def nii am na ku la ku la ci mës a xëyal li ngay def nii am na ku la ci ma a xëyal ah mu ne ko maa la ko wax maryama xëyal na la xëy moo xam ne di ko fàtte mukk mu ne ah ne ko Ismaayil xëyal na la ko Idris xëyal na la sa baay Ibrahima xëyal na la ko kon seen xëy yooya ak nu xëy ma man di mel rek bul ko xeeb. est-ce que. Oustaz boo ma joxoon benn craie. Mhm. benn craie. Mhm. yaa ngi suñu ngeen toog ci table ci ci bi ma toog ma taxaw ci table bi. Mhm. <laughs> na ma ko daan defalee Maodo Faye. <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér. su ma la bindalee al islaamu juróomi lettre ngay am. waaw al islaamu. ngay am alif. alif. siin. laam alif miim. defe naa kon juróomi lettre nga am. juróomi am. yooyu sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw fekk nuuhun tabax liif gi. ba mu taxaw waaw tabax liif gi mu taxaw. ab liggéeyam jeex mu wàcc ñibbi waaye nag bàyyi fa liif ga. bi mu fa bàyyi liif ga Ibrahima ñëw gannaawam daa def ak liif akuk laam. Hmm? waaw waaw wàcc liggéey mu bàyyi fa alif ga ak liif ga ak laam ga hmm. nu doxub diir Moussa ni tëll hmm. daal tabax siin ga wàccub liggéey jot mu wàccub liggéey bàyyi fa liif ga ak laam alif ga ak siin ga ñu doxub diir Isaa ni tëll ibnu Maryam daal di tabaxaat geneen laam alif. <laughs> wàccam jot mu wàcc. Mm-hmm. ñu toog nag juróomi téeméeri at ak lu toppatoo di. Mm-hmm. njool màkk ni tëll. la ilaha fekk bâtiment bi am alif. Mm-hmm. laam alif. siin laam alif. bu fa boole bu fa defee kaaf du baax. <laughs> bu fa defee yanara du baax. am leen lu fa def tikkant <laughs> mu jàngale ko ci addis mu ne parce que lii mm-hmm. wàllu aar aar mm-hmm. waaye mu jàngale ko ci ci addis ba mu ne innama bu'istu li utammima mm-hmm. waaw waaw hmm? li gaa yi tabaxoon la ma yàlla yónni pour naa ko mottali bâtiment bi daal man nga ne benn brique moo ci des benn rangé birig waaw mu ne man mii maa ko yore ne ko ca teg moo sëkk mooy miim nga nga daal di am al islaamu mhm. bi te bi pare sunu borom mhm. moo joxoon autorisation ñu tabax ko hmm? mhm. day joxe tarxiis pour ñu dëkki ko mu daan diina inda allaahi al islaamu bâtiment bii ma gars yi tabaxal ku bëgg a raw bëgg a mucc fexeel ba am ci appartement sas ali ñëw damaa bëgg appartement mun na ko nii rek ngay wax danga naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugg sallallahu alayhi wa sallam mooy sa jeex na laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugg ku wax rek dugg nga léegi nag ku dugg sa appartement da ngay fexe ba sa appartement bu mu nga dugg nag comme yaa yaa fa dëkk fexeel ba mu set wecc mhm. fexeel di ko bale di ko fabeere mbàkke mhm. na karaw ya set mhm. nangam nangam nangam loolu nag mooy mooy pratique bi ngay def ci biir mhm. julli yaag woor yaag aj màkk yaag asaka yaag yooyu mooy tax sa bâtiment bi set wecc ba boo liggéey bu ñëwee kenn lu la yedd suñu war nañ ne ko nag ginnaaw liggéey ngeen ba noppi nag mm. damaa bëgg ngeen benn assemblée générale gaa yaa ngi lay xaal baytul maqdis mu ne ko gaa yi liggéeyul liggéey bi ak ña nga xam ne ñoo ci jiitoon ñëpp a ngi lay xaar baytul maqdis mhm. maçon yaag seen i seen i ouvrier très bien mooy yonent yi nga lim ak yeneen yonent yi nga limut très bien mhm. <laughs> daal ni jibril demal nga jëli ko bul ko jëlee euh, car rapide nag ndax nattéralut mhm. mën naa bul ko jëlee tat njaga ko jëlee 4x4 ndeysaan bul ko jëlee avion ndeysaan ko lu naturel ndax lépp ci nature bi lay dox. mu ne lu may def mu ne ku aw fas mu war ci ngeen dem. Mhm. mooy léegi loolay doon cortège bi. très bien mooy cortège bi koy yóbbu foofa. <laughs> mu ne sojj di départ. Mhm. sunu borom topp ko. Mhm. sikkar ja jolleeg yu ni demee. subhaanallah si asra bi abdihi laylan. Mm. waaw min al masjidil haram. yàlla ilal masjidil aqsa allasi baaraknaa hawla li nuriyahu kon liggéey bi hmm. comme nun lay demee hmm. mboolem ko fi jaar Cheikh Sidil Mokhtar hmm. ñi ko jiitu ñu ñëw ginnaawam ku ci nekk bi nga ñëwee sa empreinte yi nga marqué ko ci jamono ji waskuru fi kitaab bi ñëw def lay tudd wallaahi ma tax waxtaane mag Mhm. di jariñ gone yàllaa ko waxoon yonent bi mhm. waxtaane mag di jariñ gone ba mu koy bëgg waxtaanal yuusuf ak la fam jaar mhm. daf na daf na ko nahnu naqussu alayka ahsanal qasas ndeysaan <laughs> tey laa lay nettil ahsanal qasas ndeysaan nga xam nga xissa bu yàlla tuddi ahsanal qasas mbàkke ah, jéggi na dayo la ci nekk cam njàng jéggi na dayo kon nag ko fi jaar ci ñooñu rek liggéey fi teg say empreinte ci ci ci yëf ci kayit wi rek loolu du la fàtte mukk ndax wa zikruka ba'dal mawti umrun thani mhm. tarkalla wa shukran jërëjëf jërëjëf oustaz yaakaar naa ni macha allah sëñ Mbacke foog naa ni sa waay def na parcours bu extraordinaire mhm. tabarakallah ma xayan ko dégg séeréer dëgg la tabarakallah am na solo oustaz <coughs> jërëjëf jërëjëf oustaz Alioune ci ubbi gi jërëjëf oustaz foofu nga dugal wasgur jooju oustaz Alioune andi woon wasgur ji mhm. ndax euh, misaal nga ko ba mu gën ñoo jege alhamdulilah gannaaw borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi te yàlla yonent yi la doon tudd ci téere yi day mel ne ñoom ñoom ñooy yonent yi ci maanaam ci mission rek waaw moo tax barki démb sax am naa loolu bokku ci maa ngi gis ku ne yàllaa ma yónni ñu ne ko luy sa dalil mu ne daal damay jot li wax yonent bi kon yàllaa ma yónni ma ne ko kon nag da bokk ci ñu doon yonent bi rek xam naa baat bi nga xamul nu ñu koy waxee ci olof <laughs> eh, oustaz loolu am na solo waaye li oustaz Mbaye ubbee muy ñëw gi nga xam ne moom la xalif général de Tidiane mm. euh, Serigne si man Mansour mm. ñëw waaye ñëwul moom dong oustaz ànd ak rakkam yëpp mm-hmm. ànd képp koo xam ne euh, bokk nga ci décideurs yi ci Tiwaawoon ñoom ñëw xam nga oustaz li ma ci gën a eh, xalaat xam nga démb ba léegi ñu ngi ciy waxtaan waaye li ma dikkalaat léegi mooy loo xam ne mhm. wax dëgg yàlla bu amee ñëpp dañoo war ne gong mhm. ndax lu ndax lu war a am la lu am naturellement mhm. mu am ba pare nag nekk événement ci nit ñi maanaam loolu loolu man jàngat nga ciy def maanaam euh, day mel ne luñ namoon la wala lan waaw waaw rareté gee tax hmm. xam nga lu war a am olof di wax ne dañ ko wax suñ Babacar Si ndeysaan euh, jaajëf mu ta wax mu ne ah kay mu ne ab ab ab àll ngi toll ñëpp àll. war a am matt te amul matt. mu ne kon àll bi am matt jar naa wax ne ko waaw góor yow àll bi am matt. su ndàkki affaire bi dafa war a am. nit ñi xiif ko. nit ñi namm ko. nit ñi bëgg ko. mooy xalifa ba toog naa xalifa ba. soo seetloo ñi dafi pecc ci penc mi. bi ci kenn xewlee bisam. pecc kër yëpp lay woote. ñëpp ñëw de. Hmm. mas naa dégg Youssou Ndour naan naan ki na laam wayal. Hmm. ak ci ñëwal na nga way. ndeysaan ñu daan bégal <laughs> ko de. waaw bu baax. waaw. Hmm. yàlla ko yàlla yokk wér. ndeysaan. Ah, waaw. Ah, kañ. koy yaatal ba mu ñëw. moom tam mu dugg ci yëf waaw da may waar. Mhm. très bien da koy may waar. ndax daa gisoon ne ma ngay diig mu mu jàpp ci loxo ba di ko génneewaat. ndeysaan ko dégg séeréer. <laughs> donc nun tam. Mhm. suñu penc bi sunu séenee sunu kilifa yi toog. Mhm. toog bi rek. xam nga dañoo dem màkk sëñ Mbàkke. 2014 su ma jumul. ndeysaan. ma tase fa ak sunu doyen. Euh, Seck. Makhtar Seck Makhtar Seck. bu rajo Sénégal yàlla yokk wér bu rajo Sénégal. waaw daka jàmbaare. daka bëri xam-xam. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ñëw taxaw ci wetam. Mm-hmm. ne ko ñu foto ñu ñuy foto mu séen ci jigéen jiy jooy. ndeysaan moom gaaw naa jooy. waaw andi gars yi li ñuy jooy jaaxal na dafa xam yàlla xam na ko raar te xëy na waaw waaw <laughs> bi bi mbooloo mi di dem di julli ji ñaar rakk ci jàkk ji. ma dab ko ne ko waaw. looy jooy. mu ne ma seen photo bi su ma ko mënoon a génne ci ci journaux yi ci Sénégal yëpp. Mm-hmm. ndeysaan musuma am aar bu ma dàqale aar bi. Mm-hmm. mu ne ma aar bu ma dàqale aar bi musuma ko am image bi ma am nii. ndeysaan donc loolu suñu mbàkke mm-hmm. li war a am bu ko nit ñi namee te bëgg koo gis. bu amee day neex. ndeysaan te nag. xam nga léeg-léeg nga dégg oustaz sàngam aye na peut-être doo gis oustaz yi déedéet peut-être ay xarit la ñuy gis ak nangam ki nangam waaye diw aye na diw ñëw oh sëñ Mbàkke loolu rëy na loolu nag la nit ñi namoon nag bëgg ko ba tax image bi rafet ci ñoom réseaux sociaux ñu ngi koy génne télévision yi ñëpp commentaire yi moom tabarakallah donc li mor na am ba pare am la nit ñi namoon bëggoon ko te loolu mor na am ca mag ña nag mag mm-hmm. ñi loolu moo doon am ci ñoom mm-hmm. xanaa dem ba seen tànk diis rek waaye li seen tànk yi woyof dañuy demante léeg-léeg nga dégg ñu ne la sëriñ diw ak sëriñ diw ak sëriñ diw daje nañ kër diw dëgg la mm-hmm. dëgg la maa ngi gis rek léegi suba photo buñ ma booleel sëñ Basiiru ak euh, sëñ sëñ Mansour si sëñ Mansour mi nga xam ne mooy waajuru sëñ Bay si Mansour photo bu mu ànd ak sëñ Basiiru ñu ngi ko boole ak ñaari photo yi ci internet bi kii même kii Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaw diggante sëñ Fallou seetal euh, lool noonu mii. seetal lool noonu la demoon ak maam Raan. ndeysaan moom ak ba ci cardinal Thiandoum. ndeysaan seetal lool loolu loolu am solo la oustaz. xam naa ne ci njàngat mi ñu koy jàngat nii. Mhm. du mën a génn sax cadre bi nga xam ne ci lañ nekk. Mhm. mooy mooy wàcc liggéeyu sëñ si Mokhtar. dëgg la ñu ñëw indi am njaal. Eh, de xam naa dégg ci it ne sëñ Sidi Muxtaar suñ borom nangu na liggéeyam ba mu doon woote ci benn julli ndax wan na ko résultat bi ne ko bul tiit gannaaw dem nga tey sax ay ndaw duñ ñëw waaye ñi nga fi bàyyi woon te bëgg ñu nekk benn ñooy daje toog di waxtaan waaye oustaz bu ñu ko mënoon wax danañ ne xam naa daal bu jàllee mm-hmm. ba yëpp jàll ñoom seenub jotaay am na solo maanaam tey buñ doon toog dana am yuy xew ci pénc mi yoo xam ne man gis naa ne dana wàññeeku kompaloo gi nga xamante ne itam nit àdduna yi ñu ngi koy kompaloo diine ji mhm. ci yu baree bari ñoom bu ñu doon toog ba nga xam ne ku dem fee la nga fay dégg boo ñëwee fii moom nga fiy dégg ñaari kër dootu amati genn kër am maanaam ñiy waxtaane li xew daal danañ ñu gën a dimbali te itam dana gën a am solo euh, soo ko seetloo hmm. feeñ na ci wax ja hmm. ci seen discours yi ñoom ñaar hmm. maa ngi lay wax sànq ne la suñu bay si mosu dafa ne xëy na xew-xew daa xew bu métti ci xeet ci ci mi ñëw waaye war nañoo mën a ñëw ci beneen xew-xew. ndeysaan waaw kon ab joxoñ a ngoog. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax sëñ Mbàkke. keroog ba ko Abdul Aziz defee. Mm-hmm. dafa déranger woon gouverneur. ndeysaan. bam ne ko loo fu doon wuti. waaw loo fu doon wuti. parce que moom <laughs> daje boobu arrangé wu ko. ndax bu ñu fa dajee léegi tey ñu waxtaan fa bu ñu waxtaanee léegi tey mu am la xew. mu ne ko loo fu doon wuti. <laughs> ndax moom bu sañoon force bi ñu am day nelaw rek. waaw mm-hmm. ah, force bi nelaw la. bu sañoon. Mm-hmm. force bi ñu am day nelaw rek. Mm-hmm. kon daje yooyu. dajewaat dajewaat. am na lu muy tekk ci penc bi te ñaare daje gi. dana tax kumpante du am. <laughs> Eh, gaa yi ci digg bi dootuñu liggéey. waaw waaw miiru miiru kumpa. waaw dafa rëy de. miiru kumpa miiru kumpa. dafa mm. rëy mooy indi njort mooy indi jëwante mooy indi lu ne. jeex na oustaz Cheikh Cheikh Amadou Tidiane Fall mële ca Louga moo ko wax keroog ci ndaje mi ñu doon ndaje fële ca Géejawaay. waaw ndeysaan mu ne su ndaje yii. Mm-hmm. day màbb miiri kumpa yi. ndeysaan ndeysaan parce que miiri kumpa yi bu fi amee. Eh, dafay am lu ne ci ginnaaw lu ñu ay commentaire mm-hmm. mm-hmm. yow dingali di wax mm-hmm. dingali nangam ba mën nañ la ko indi la façon boo xam ne yow mi ñu ko indil da ngay mere ki ko wax fekk ki indi wax ji dafa nekkul lantinoor daf caa tibb benn affaire indee ko ni mu ko bëggee moom ak ni mu bëggee nga réagir noonu mm, daal la koy ràbbale noonu waaye suñu mbàkk bu daj yi di am kon ni nga ko wax léegi mooy miiri kumpa day dañ dëgg la kenn du baax maax fële lu ñuy déggul kenn dox fi lu ñuy déggul dëgg la am na solo lool tabaarakallah loolu te eh, eh, su oustaz eh, Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasul diggante ma si Xaj Maalik xam nga dañ daan dañ daan seetante. Mhm. tabaarakallah di bindante. Mhm. maam Ablaye Niass. waaw mhm. dañ daan bindante. boo gisee gouverneur Borokaar. sëñ Mbacke ngi wax bi lu neex a neex te am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na nit li tax si Cheikh El Hadj Malick kenn mënu ko woon a jëw. Mm-hmm. jëw jëw fa sëñ Tuubaa. boo nee na boo ñëwee bay tàmbali rek. mooy la sama moom. sama mbokk mi sama mbokk mi. voilà nga ne ci moom wax na ko sax yéen a xamal Bamba <laughs> wax ci moom lu ñaaw te nga da ngaa bokk ak man. jàppal ni yow yaa yaa jéem a bokk man waaye séquma yow dara. ndeysaan jotewuñu fii jotewuñu ah, seen jëmm. ca a ca ma ca ma ma xaram la woon. te te ci wàllu ceddo yi. wax na li nga wax rek sëñ Mees li mu wax nii dafa am solo sëñ Mees boo xoolee gàmmu gàmmu 2006. waaw booba sëñ Saalu mi ngi fi. waaw ak sëñ Mansour. Mhm. xam nga waxoon na fa wax ju am solo daal ni yow sëñ Mansour yaa ak sëñ Saalu mi jaadoo na ngeen jékki-jékki daje Ngor jaaraama. ndeysaan même bu ngeen fa waxul dara. ngeen tëju rek naan kafe kenn ku dugal sa oto dem <laughs> nee na kooku kumpala goo xamante ne dana rek la lu bare bare bari xam tubaab bi bañ loolu moo moo dëggal tey alaajab bi mu demee ci seeti yi sëñ Modou Moustapha mm-hmm. te gouverneur ba ne ko loo fa doon wuti xamante ne nii dañuy dem ci kër sëñ si mm-hmm. jébbalu ji takk ndigri waagar waagar yi l'islam leen dem mm-hmm. lislaam tax leen dem ne tojante ay bopp ak suusalante moo leen tax dem yu bëri ba nga ngay dégg na sëñ Tuubaa doon lu nettali lu ñaaw dëgg la déedéet benn rek mën naa ko ci wax li ñu nettali ci bureau ba ca Ndar mhm. sëñ Tuubaa ko waxu ko mhm. ndax wax ju ñaaw jooju mhm. ay nit yi nga dañoo lekk yàpp xaj wax jooju sëñ Tuubaa bindu ko nettaliwu ko kon ñi ne ci diggante bi tey ku crédible sax ku crédible sax ci moom sax du ko wax du ko wax waaw jooju wax moom ay waxi kii la moo tax il faut nit daara yi il est temps nañu yeewu ndax daf naan joxañ bi Seex Sidi Maxtaar te sëñ Mbaye su mbay suma suur maas mbind mi. Mhm. loolu lu jar dundal la oustaz. barakallah jërëjëf am na solo oustaz xam naa ne doon ko oustaz Mbaye jàngate mhm. jàngat mu xóot la. Mhm. man li ma ciy dégg oustaz mooy li ma doon junj biig. ci ñi nga xam ne daal lu ma ko doon tudd dama naan ay anti bennoo lañ. maanaam ñoom bëgguñu nit ñi gisee. waaw day am ci kër sëriñ si day am fu ne dafa gën a fës nag. ci politique day am ci politique bi. waaw waaw ñoom aw dig rek la ñu bëgg. rek maanaam ne kii toog fële kii toog koyam ñiy jël di toxal démb jël naa la ci benn misaalu détail boo xam ne ci penc mi la dañ koy waxante. Mhm. léegi rek xam naa yéen ay mag ngeen. waaye du ngeen fréquenté garam place yi yooyu. waaye mi mhm. boo duggee ci carré garam place yi wala daayira yi. Mhm. da nga gis koo xam ne day jàpp ne suñ béy si man sa ruuru dem fekk mu nekk taalibi tijaan day mhm. jàpp ne yónneen bi rek doy na sëkk mhm. kilifa gu déplacé wu di dem nii loolu ëpp na mhm. ndax ndax maam Abdou Aziz bi mu doon déplacé wu dem Touba moom ci boppam waxal na ko boppam ne ne bari na ñoo xamante ne loolu neexu leen waaye nag kum naqari rek jàppal ne sëñ Touba bég na ci Alaaji Malik bég na ci yonent bi bég na ci da gis taalibi murit boo xam ne moom day daal di jël baaraamam teg ci dënnam daane ne bi fii la ñëppay ñëw sëñ Tuubaa amul morom maanaam jël affaire bi di ko bàkk ba nga xam ne ah, dañ ñaan sax yóbbu ko ci beneen forme waaw ndax am na seeti boo xam ne Seex mm-hmm. Sidaañu Maalik jóge woon na ko Tiwaawoon mm-hmm. seet si ko sëñ Tuubaa njaareem mm-hmm. boobu ci gaaru njaareem bala wàcc di seeti maam Ceerno Kanji ca ca quartier Ceerno Kanji dafa ñuy wax Demba Wele ba mu ñëwee dane du ma dem foofa te nuy jiw ma Ahmadu sama mbokk mi ci biir dëkk bi sëñ Tuubaa ba mu ko yëgee dafa dajeeg moom maanaam fekk ko ca fa mu nekkoon moom itam jutu koo fekk ndax ba mu ko yëgee dane eh, alaaji sama mag gi du ñëw di ma fekk si di ma nuyu mu doon <laughs> eh, am kii ba di ko nettali bu hmm. lay wax te ñoom seen diggante loolu loolu loolu loolu doxu ci woon parce que parce que sëñ Tuubaa taal bi mu taal nii muy mouridisme oustaz laataa muy hmm. eh, wirdu xaadir ndax mhm. moom la fekk Maamoor Anta Sali di ko wird mhm. mu wirdu ko wird ba ba bàyyi ko mhm. dem jël wirdu Tijaan ba fii may waxee yow boo demee Mbusoobe ba fa nekk dalay jox wirdu Tijaan ndax li jaa sàll waaw li jaa sàll ndax bi Sëñ Tuubaa bàyyee wirdu bi jël wirdu murit it amut maanaam maanaam nangu na ko nangu goo xam ne dafa jël Sëñ Mbàkke Buso mii loxol nday jooram bàyyee ko wirdu bi mu continué yor ko ndax bëgg a wone ne bàyyiwuma ko ndax xeeb ko waaye nag damaa ne ci ay dama digganteeg sama borom ndax waxoon naa mu ne wird yi naafila la. dëgg loolu daal jeex na taxaw xam nga luy noonu. luy noonu nit. Mhm. mooy al jël. Mhm. waaw réer. Mhm. réer lii noonu nit dëgg. mooy al jël. wa man nahaakumu ani taallumi. fa nahyuhu ila dalali yantami. la ilaha illallah. ci Saas Mbàkke sunu mag ñi. naa lay faral di nettali. Eh, maami Omar Diouf Fall mii. ah. waaw ku yàlla nattoo mu silmaxa. te bëgg man alxuraan. Mhm. ndeysaan Serigne Touba la fekk ci njaarim. Mhm. ne ko Mbàkke man de gis nga ni ma mel nii. Mhm. waaye dama bëgg alxuraan. te bëgg koo man. ndeysaan te. waaw maam Serigne Touba ne ko ah sama mbokk mu la dey Malick. moom laa ci yaakaar. gisuma ci penc mi ku ko ci raw. Eh. kaay dem ci moom mu def ci alxuraan. lii seen rek. lii la ko wax. wallaay la seen ko betaaxal. góor gu yóbbu ko. waa mbarag may dégg. waaw. bi ko góor gu yóbbu moom Cheikh El Hadj daan lam ko tegal mooy ah. tey sama mbokk mi le lim may sant day mhm. lam ca mën a ko raw day mhm. toogal nu fàggula leen ci man mhm. mu toog mu def ci moom lam ca def ba noppi bindal ko bataaxal ne ko demal mu mu mu nattu la <laughs> góor ga del siwaat eh, njaarim fekk faam suñu tubaab jox ko bataaxal mu jàng ko daal di daal di koy tàmbalee nattu ay fan moo góor gu moo góor gu mu yàgg mu ne ko man ne li may foogoon li muy def ci yow. Mhm. lim ci def ko ëpp. Mhm. dellul mu may la werd. ndeysaan. <laughs> dellul mu may la werd. ñoom Oustaz xam nañ li xew. ñoom xam nañ li xew xam nañ li xew xam nañ li xew yàlla nañ li xew. waaye ca ca te nga loolu Oustaz waaye gis nga Mbacke li nga wax mm. a réyal. Mm. a toll ci jàng. Mm. toog di télé di jàngale. ku toll ñu <laughs> wax xam ne a fay sax koy seetaan. xam naa daal Oustaz nit daal lu mu fekkewut nett li la ci gën a rafet daa gën ci moom gën a wóor mhm. léegi nag jàng ci alxuraan waaw allazina yastami'una al xawla fa yattabi'una ahsana kon nag ñett li la gën a rafet rek mhm. la la xaw a kii say nopp nga maanaam nga weddi ko bañ dem yowmal xiyaam ak jàmm tabarakallah <laughs> jërëjëf Sud FM lépp ngeen bëgg a xam ci seen diine Sud FM ubbil na leen bunt bu wóor bu leer ngir ngeen am ci ay tegtal bu 8h jotee jàpp 10h oustaz Alioune Sall dina toog ngir wax ak yéen or antenne maanaam mu ngeen ko woowee yéen ñaar dong yéen ay mën a waxtaan ngeen jox ko seen laaj mu tontu leen ci nu mu gën a leeree hors antenne maanaam yéen ñaar dong ngay déggante jël leen seen téléphone ngeen woote ngir xam lépp lu leen soxal ci seen diine 8h 10h oustaz Sall ban numéro ngeen di woote 88 628. 98 98 ngeen bës 2 628 98 ngeen bës 2 fii dong la ci Sud FM 98.5. ala sayidina Muhammad. dafa mel ni li nu dese ci minute benn simili la wala fii la genn wàll. waaw kay daane moom kon de moom externe war a war a yëkkatee. dañ naan lu jiw a jeexul jógu fa. jiw a jeexul fa. Mhm. wallaay ndeysaan xanaa loolu la oustaz kon xanaa ñuy tëj ko rek. Euh, euh, nga tënk li nga xamante ne li moom lañ doon wax taan léegi. nelaw ko tey euh, ci nelawu sëñ Sidi Muxtaar gi waaye tey ji oustaz mooy bis bi ñu koy ñaanal foofu ci Touba. Mhm. Euh, sëñ Moustapha ab taawam nekk guy mbind ak sëñ Abdoulahi Mbacke Kumba Suuna mi nga xam ne fi mu ne mooy xalifab sëñ Baara. ndax moom ak ki njabootu sëñ Baara gi. Mhm. sëñ Muntaxa war nekk euh, fële ca Daaru Minam moom itam taalibe yi di ko fekk di jaayante waat di yeesal seenu njébbal ci li nga xam ne mooy xilaafa gu bees gi. incha allah yàlla lépp jaar ci yoon suñu borom jaar ak fa mu daan jaar lu jiw jeexul jógu fa man sax min ayatin ak nunsiya naati bi xayr minha aw misliha bila manaaye wala intihaaye dina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waahibun nafi fi lmadayi safi bismillahi irrahmani irrahimi allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa nasir ilxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim وجلهاته الأمداها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين wajalha mimma tataqana biha huurul xiin wal wildaanu fi ljannati allati wuxida almutaquuna wajalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaamu بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء jërëgéen jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo bu ngeen xoolee seen montor 10 heures jot na ba tekk juróom-ñaari simili oustaz Alioune kon lan moo ci tege. ginnaaw bu ñu gërëmee Boubacar Boli mooy ñu li ci teg rek ñu ñëw ci deuxième partie bi incha allah tamit wàllu auditeurs yi. auditeurs yi ñi bëgg a ñun oustaz bu dee ñu ne ci biir réew mi dañuy woote ci 88 628 98 98. am na ku ko dégg ba mu ngi nii. maa li dalal ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yaaram na nga tudd fa woote. maa ngi ziar bu baax oustaz Alioune Mbaye. la Mbaye. di ziar sëñ Mbacke si dëgg dëgg na nga tudd. incha allah man la sëñ Ibrahima Diagne asalem Marsa Salem. Ibrahima Diagne Marsa Salem. waaw ñoo ngi leen ziar di kontaan ci émission bu baax. jërëjëf Diagne. di leen ñaanal yàlla bu baax a baax. jërëjëf Diagne. liggéey bi ngeen liggéey yàlla defal leen ci lu kawe seen jot. amiin amiin Diagne. léegi démb ci guddi damaa amoon benn laaj boo xam ne dama ko laajoon Mbàkke dama ko laaj xam naa déggee ko noonu. Mhm. dama ko wax ne ko comme comme góor gi nga xam ne dafa am soxna. Mhm. ba pare amaat geneen jigéen doom. Mhm. moom góor gi ci jëm boppam léegi waajuram mu góor wàññeeku. Hmm. ndax war na koo doon. waaye moom góor gi waajuram mi wàññeeku ci yoon la ko amoon. waaw moom moo dem def jeneen jëf rek. waaw d'accord léegi nag leer na. <laughs> waaw baax na léegi maa ngi baax sama xarit bu baax bu nekk fële ci ministère bi ñu ko wax sëñ Baam Ndiaye. ndeysaan. di xaritu Serigne Sall Aliou Sall moom. ndeysaan ñoo bokk dëkk fële ci Diallo Ndiaye. d'accord. maa ngi koy ziar bu baax a baax. jërëjëf. baax na jërëjëf sëñ Mbacke kontaan naa si yow loolu maa ngi lay woo bii sax sa téléphone de sonné rek. saan alhamdulilah ñu am yàlla kontaan nañ ci lool. jërëjëf jërëjëf euh, Ibrahima Diagne Aslem ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf 88 628 98 98 33 841 22 33 ñooñu waa bitim réew foofu la ñuy jaar ngir bokk ci jotaay bi di séeré jotagoon rek ba teg euh, juróom-ñetti simili man ngeen a ñëw indi seen i laaj ak seen ay commentaire ci jotaay bi nga xam ne moom lañ nekkoon imaam yi. daa mel nag ci biir asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam wa rahmatulah. yaaram na nga tudd fooy woote. Euh, maa ngi tudd Baye Mor Mbengue dëkk Pikine ginnaaw raay. Baye Mor Mbengue. waaw. bisimilah Baye Mor. waaw ginnaaw bi leen nuyoo di leen ziar Sabaal ñu Mbaye Sabaal ñu Sall Mbacke Seba maa leen di ziar bu baax. Mhm. benn question la laa amoon di laajte maanaam nit fan lay commencé doon ak kañ lañ koy doon moom. d'accord. waaw ziar naa bu baax a baax a baax. ndeysaan Meng ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax ci duggam bu am solo boobu Ima keneen egsi na. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah. waaw sëriñ Mbacke si la Ablaye Cissé la Italie. Ablaye naka waa Italie. ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare. tubaarakallah. alhamdulilah ñu ngi fi Alioune ñoom ñaari Alioune yëpp ñu fi ndeysaan. ñu ngi leen di nuyu di leen déggee bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñu rafetlu trio bi macha allah. ndeysaan. waaye xanaa rek di leen siyaare kilifa boobu ci jógee. jërëjëf. ndax noonu ko Saas waxee kenn la ci ku bokkoon ci waar yi. ndeysaan. te yéen yooyu ci ngeen nekk yéen mhm. kon ñu ngi leen koy siyaare di ko ñaanal yàlla mu yokk leeram tas ci barke. Mm, ndeysaan. waaw laaj bi ma doon laaj daal. Mm. moo di fii ñu nekk ci réew mi ci Italie. Mm, da ci am ay dëkk xamante ni yàlla daa dogal di xewal ay carte d'identité biométrique mm-hmm. mm-hmm. da ci am ponk laaj ba xamante ni mm-hmm. dañuy wax ni ndax nit ki d'accord nga ci boo fi jógee ñu soxla lenn ci say organe mën nañ koo jël mm. boo boo waxul dara it eh, dañuy def li tubaab bi naan kii sa tee constant maanaam ku noppi nal nga ni ànd nga ci mu mel ni ñun ay jullit lañ mm. dañoo xamul ndegam ñun jullit bi dagan na ci ñun walla araam na ci ñun. Mhm. ñu signé ni nangu nañ ko jël lenn ci suñuy suñuy suñuy suñuy suñu yaram. Mhm. ginnaaw ñoom bi ko soxlaa waaye it ginnaaw ci jógee ñu. waaw loolu daal moo doon laaj. jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Cissé Italia ñu ngi koy nuyu te di ko ndokkeel di nuyu waa Italie yëpp ak waa bitim réew yëpp Imam Ali am na ku ñëw. nuyu ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Mm, mm, yal na yàlla nangu siyaar. Jali Wade. Jali na def yàdd. sant yàlla bu baax. alhamdulilah yàdd yàdd. bisimilah eh, bisimilah eh, li amoon ñaari laaj. ñaari laaj bisimilah. ma ci wan nag bi ma awxaa. ma ndeysaan nañ mi aaya dix. ba dix. Eh, ñaareel. <laughs> maa ngi koy wax ni mu mu wax ma ban tur moo gënoon a neex yonent ci tur yi ñu koy woowee. ndeysaan ndeysaan. waaw bu ñu mënee Serigne Laxat Dia comme deux mille dix huit nag bu ñu xajee. Ah, d' accord. <laughs> waaw jaajëf. jërëjëf Jali Yàdd Imaam lii soppeeku jotaay bi la ñu ngi koy nuyu. jërëjëf Jali Yàdd lii 49 am na ko nekk ci biir nuyu kooku. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah. bismillah euh, euh, maa maa ngi lay nuyu yéen ñëpp di wax dëgg yàlla. Mhm, ndeysaan. di nuyu oustaz. Euh, man nag Mbaye laa sant mbas naa fay woote Pape Demba Mbaye France. Pape Demba bisimilah naka waa France. yooyu yaa war a wax. Ah, bisimilah sant yàlla sant yàlla. ndeysaan dégg nga sa doomi bàyyi di sibile noonu bisimilah. <laughs> waaw gis nga ko. <laughs> waaye baax na waaw ma maa ngi di. <laughs> maa ngi di nuyu bu maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Oustaz Sall. jërëjëf ñu laa fay bu baax a baax. di nuyu sëñ Mbacke moom nga xam ni ndeysaan. yow daanaka bu fekk continué du yow ñu bari duñ comprendre émission beeg wax ji. ndax euh, lu ñu wax rek euh, lu euh, sëñ Sall moom wax yaay jaaraat leeral ko bamtuwaat ko ba mu leer. Mm-hmm. kon tey bu ñuy wax ci journaliste bi man dama lay wax ni yow yaay vrai vrai vrai journaliste yéen ñëpp sax. Mm-hmm. kon yaa leen sàmm borom dolli jàmm damay commenter rek aw ma sax question. ndax yéen moom l'islam bi ni ngeen ciy def tey bu fekkoon ne maay président de la République. wóor na Serigne Touba Mbacké yéen a ëpp salaire euh, ci nekk Sénégal. yow daal posé le candidat rek kon. waaw ndax kat <laughs> li ngeen li ngeen di yee nit ñi ci lislaam yi. <laughs> Eh. ba ñu xam seen lislaam. ndeysaan nit ñaa ngi nekk ci àdduna yi di di di di tëgg ko fecc ak di def yëf ñu leen di baat rek di leen jox te jëriñul dara ci àdduna leen. ay man mi man mi wax ak xam naa ci dara ndax askan wi ma bokk. yu demee noonu la mais amul solo. ndeysaan ndeysaan. sëñ Tuubaa dafa bàyyi loon sama am gayen ba. ndeysaan. waaw ndeysaan ah, euh, di jaax rek noonu ngeen nekk daal euh, euh, bu ko bàyyi bu leen ko bàyyi bu baax a baax a baax. ndeysaan. damay ñëw ci këru diine yi loolu nga doon wax. Mm-hmm. taalibe ñu nekk ci biir këru diine yi ñooy yàq. Mm-hmm. bari na ci de. ndox nag ba nga xam ni am nga fit woo taxaw di ko waxee. Mm. te muy dëggit dama mos a dem vacances dëkk bu ñu naan Louga. Mhm. Euh, quartier bu naan kër suñu soxnaastu. Mhm. siyaare fa euh, sama maam Abdou Aziz ñu gën a rëppatal tuuti ñu gën a baar waaw bi bi bi ma ñëwee ma jox ko loxo su jootal ko. Mhm. mu daal di ma nikkatee lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg daal may ñaanal ma dem. boo fa génne ma gis ci njàngat. xam ni kii kat diine rek moom moo ko ñoxal te lépp nag di islam rek te yaan murito xaadiroo yonent bi rek la ñu rey. am na ñoo xam ne boo nee sëñ Touba li ngeen Alaaji Maalik ñu ni sëñ Touba gën kee gën kee déedéet sëñ Touba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la di roon mbagg moom la toppoon. kon jërë ngeen jëf yàlla na fi sama borom yàggal. amiin amiin merci beaucoup jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Pape Demba Mbaye tubaarkalla mu tudd ca France 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga too fi wootee. Saalum Mbaye madame Aydara. ah madame Aïdara Serif na nga def. sant alhamdulilah Mbaye. ndeysaan sëñ bi jàmm rek Mbaye. jërëjëf Aïdara ana mbokk yi. maa di ziar Oustaz mhm. rafetlu waxtaan bi bu baax. jërëjëf jërëjëf Aïdara. di wax nag benn contribution bu ndaw rek. Mhm. dama ne nit ñi xàjjale tarixa yi dañ ko xam rek. Mhm. ndax ñun ñëpp ci yàlla lañ jóg. yëpp ñu ñuy ut lépp lépp ci yàlla la mhm. donc nag benn xaajaloo waru fee am mhm, mhm. muy tijaan baax muy murit baax muy laayaan beeg ñëpp yàlla rek lañ jëm te yàlla ñu yàlla nangu suñuy ñaan min jërëjëf madame ñu ngi koy jaajëfal dafa mel ne dog na. waaw daa mel ne dog na waaye noppi na am am solo. bisimilah bisimilah. waaleykum. waaleykum salaam. Eh, kooku la Cissé Cissé <laughs> xanaa da ngaa log mburu moo tax moo wax ca kaw. non non dégg naa fay waaw li mu nuyu. yaa koy ñu laa fay. bàcc ah, la bisimilah bàcc. waaw. Hmm, ndeysaan. waaw loolu di waaw. jërëjëf jërëjëf jërëjëf siis. gis nga euh, Mbacke. Hmm, bàcc. man de am naa laaj dama koy njëkk laaj ba pare. Hmm. mooy ndax jigéen mën naa tudd doom. d' accord laaj. jigéen mën na tudd doom. mën naa tudd doom. d'accord waaw. beneen bi ci topp xam nga lan la. Hmm. démb ba léegi yéen a ngi wax ci benn tarixa yi. Hmm. mais li ngeen di wax ko gàmmkat yi dégg. Hmm. ndeysaan gàmmkat yi. waaw lu yàq mooy lan bàcc. <laughs> gàmmkat mooy ñu nekk ci yi di di di ah, ñun duñu ay gàmmkat kon. ah <laughs> ñun ay gàmmkat. non yéen ay ngeen. ah kon ndax yàlla. <laughs> amul amul sëñ Cheikh dañu woon. bàyyi leen waaraate bi te yeete. ndeysaan. bien sûr loolu ngeen nekk. ndeysaan beneen bi li li mbokk moomu bu état bi dégage pour éducation nationale mooy lu yar nit ñi. yéen da ngeen ciy participer. ndeysaan a am. mais éducation amul enseignement moo am jàngale kese moo am ci réew mais yor kon a am yéen da ngeen a am. bàcc bu ko wax day yàq émission bi rek. <laughs> léegi mu génnee machine bi di calcul. <laughs> jërëjëf jërëjëf. ndeysaan. jërëjëf bàcc bàcc siis. gars yi ñoo baaxoo. yëpp am yërmande rek. ndeysaan. ah bis bis boobu léegi kon Mbacke mooy sama doyen la. <laughs> egsi na. egsi na yaaram maa ngi jëlal kooku. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaaram na nga tudd foote. man di ma tudd Abdourahmane di waatee Mas Aslem. Abdourahmane ci Aslem. waaw. ndeysaan. bisimilah rahmaani rahiim. amiin yaa rabbal aalamiin bisimilah yaaram Abdourahmane ñoo ngi sant bu baax. waaw ñu jóge ci yàlla te wàllu yërëm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin Abdourahmane bisimilah eh, man maa ngi doon laaj. Mhm. waaw. ustaaz bi woon ñu si inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar. Mhm. aka inna alxasanaata yuzhibna sayyi'aat. Mhm. Ah, li ci topp. ñett baat yii. fan la ko nit war a inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ak xasbiyallah wa ni'mal wakiil mm-hmm. ak laa hawla wala quwwata illa billah mm-hmm. tam ñoo ngi lay sant di la gërëm di bëgg ci sa dugub boo am solo boobu oustaz Sëñ Abdourahmane moomu marché aslam lay wootee fa Ousmane si sa nekk. jërëjëf lay di sant di jërëjëf waa trésor suñu jigéen ñi baax ñu ñu de. am na ko ci biir. waaw jëlal ko waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaaram na nga tudd fooy wootee. waaw ah, Cheikhouna Sylla. Cheikhouna. Sylla Colobane. Cheikhouna eh, na nga def waaye. Ah, waaw sama mbokk moomu Serigne laa fay bu baax a baax Cheikhouna. maa ngi lay ziare bu baax a baax. si jërëjëf Sylla. di leen jaaree kilifa kilifa gu tedd gii fi jógee. Sylla Makhtar naan day saa. di ko jaali umma islamique yëpp. ndax xam nañ ne moom daanaka lu fi bàyyi di yonent yu bàyyi saaba yi moom. déedéet du fi bàyyi ni ko leen fi bàyyi tamit ba lay nax rek. wallaay ndeysaan. waa su ko defee ñuy siyaare oustaz bu baax a baax. jërëjëf. di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bu ngeen ciy doon def. Mhm, waaw am ñaari laaj yu ñu indi woon rek. waaw. waaw su bu ñu demee suur saat 24. suur waaw yaa Daawuda innaa ja'alnaaka xalifatan fil ardi. Mhm. ilaa aaxiri aaya. Mhm. boo demee ba ci kanam tamit aaya 28 29. waaw di wax oustaz nag am na fi ay soppam ñu koy bëggee bu baax a baax ku ñu wax alaaj Serigne Dia ak Cheikh Abdou Lahad Niang waaw di leen ñaanal tawfiq ak ay Serigne jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal sëñ Cheikhouna Sylla Makhtar dugg bi amatina solo imaam bi jërëjëf Cheikhouna Sylla Makhtar tabarakallahu nuyu ko baax a baax moom itam Birahim Ndiaye nga marché tu leen di ànd ak ñun jëlal kooku asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaaram na nga tooy fi woote maa ngi baaxaalo Aliou Sall laa tudd maa ngi woote yëmbal Baye Fallou ah yow yaa ngi ci groupe bi. waaw. jàmba ñu ngi doon doon ziar rek di di kontaan ci waxtaan bi waxtaan tey wax dëgg yàlla am na solo trop trop trop ah dañu waxtaan bi rek wax ne eh, am na solo trop ah na solo trop tey moom dañuy dañuy dañuy toujours trop ah kontaan nañu ci trop trop. jërëjëf di wax yàlla suñu borom yàggal leen fi. amiin eh, guddal seen fan. amiin eh, ah. ma waaw tey moom dañoo dañoo kontaanoon rek ñun mosu ñu war cee jëm mais tey moom dañu dañu waxtaan bi dañu tuuse daal. da ngeen a bég daal jërëjëf. wallaay daal dañ ci bég lool sax. ayca jërëjëf jërëjëf Baye ci ndeysaan kàllaahu ca yëmbal 88 628 98 98 33 841 22 33. foofu la ñuy jaar ngir bokk ci jotaay bi dese nañ juróom-ñeenti simili ngir mën a ñëw indi seen i laaj ñu ngi leen di taaxeerlu bu ñëwee indi ko ci kanam tuuti ñëw ñoom ci seen tontu yi maal yi. madame Diallo trésor la nekk madame Aïdara tam trésor la nekk sunu Oumy Ndour ak euh, sunu garde ya fa nekk yëpp waa poste police ak ñu ngi leen di nuyu. ndeysaan di leen ñaanal jàmm ak wér ak wérle. tubarkalla tubarkalla loolu am na solo. Euh, ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax soppe Aline Gadiaga jombut mi ngi ci yoon wi. di mhm. <laughs> di nab nabi di ñëw ah, alaaji mbay daaru ci bu itam ci. waaw ci gaa yi la alkitaab bi la bokk moom itam jombut mi ngi tocc toccal am na ku nekk noonu imaam ak tukkuloor tukku moom ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaaram na nga tudd fi woote. Eh, alaaji Daam Gaye. alaaji Daawda Gaye. Daam Gaye Daam Gaye. Haji Daam Gaye bisimilah. Eh, waaw maa ngi maa ngi wootee Gueule Tapée. est-ce que Daam bisimilah. Eh, waaw man nag c'est la première fois may woote ci euh, rajo waaw leen faral di déglu tout le temps mais vraiment maa ngi rafetlu émission bi. waaw ok waaw. jërëjëf Gaye. daam Gaye Gueule Tapée suñu mbokk yi mag suñu ñoom Assane Wade Assane Sarr ñu ngi ci Gueule Tapée. ndeysaan ñu kii. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa barakaatu. bisimilah. waaw El Hadj Oustaz Imam Alioune Mbaye. waaw Ibrahim ñu ngi lay ziar baax a baax. ziar Oustaz Mbacke baax a baax. jërëjëf Mbengue. Mbengue Mbengue. daanaka ñu ngi topp ay ba ba léegi. ndeysaan. mu mel ni daal amul benn laaj yu dul sax ñu ngi suñu mbéy. ndeysaan Mbengue. ci ngeen di amal ci rajo bi yëpp. ndeysaan. ak yi nu mel bu bu amee ni ngeen ci doxalee. Mhm. ñu ànd ak yéen wax ne daal dégg nañ dañuy soxla jënd lañ. léegi ñu bu baax. ndeysaan parce que Ibu Ngoone Mbeng dem na. jërëjëf Ibu baax suma xarit la sunu wëllëre ku bëgg rajo bi la tabarkalla. ndeysaan ñu ngi koy nuyu moom waaye mbali yëpp dalalal kooku yaaram. di ziar. man la taalibe Cheikh ñëpp di leen ziar ki nga xam ne ñëpp moom la ñu Mm-hmm. dinañ ko jaal. su ma wax dama koy jaal murit wala tiijaan ndax moom bëggul woon dégg ndax maa ngi koy jaayaan umma islamique bi yëpp. ndeysaan. Cheikh Sidi Mokhtar nag ñàkk nañ ko rëy. lu ne lu ne nit mën na ko témoigner ci moom. bu dee côté spirituel bi loolu man yéen yéen ma ko gën a xam dama koy bàyyi ak mm. waaye man li ma gën a marqué ci moom mooy bu toogee ci mbooloo. nekk mag mu am quatre-vingt-quatorze ans. mu ngi gën a yaru ci ci gën a yaru. waaw kooku kàddu gi mu taw kàddu gi. waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan baal nañ la baal nañ la baal nañ la baal nañ la lu fees tuuru euh, ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, noonu la léeg dara yëngu ci nit daal euh, mm-hmm. lay lay yëngu ca moom du ko tey waaye li nga ko dégg xam ne yëg-yëg nga waxee mm-hmm. jëlal kooku imaam eh, soxna si na doo fi woote sant yàlla sant yàlla rek doon woote di jaale soxna si génn léegi man tamit daf ma ku ne la nga yëg yaa ko xam mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal di leen bàllu àq parce que leen nga woote di sonal nit ki xaj na nga la ngay woote sax c'est élémentaire mais yow la ngay wax xam nga fu mu toll ci ñun mm-hmm. Mm-hmm. yéen mënuñu leen a fay yeex leen a xam rek la ñuy rëccu te leen a xam rek la ñuy rëccu ndax yéen a yee bu baax xam nañ li ngeen def ci ñun yal na guddal seen fan. bu ma jullee ñaar ne def addi Seydina Mohamed après damay defaat mais sama suñu ñi ñuy jàngal alxuraan ak ñi ñuy yee te yéen ñi yee la yee yàlla fayal. Mm-hmm. ma tam jonko. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <coughs> dëgëru leen rek dëgëru leen rek bu leen def noonu dëgëru leen rek yàlla baax na incha ko ñu jaajëfal baax ma madame Jongo ak taalibe Seex mu génn léegi mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum sëñ Mbacke si la. waaw yaaram. waaw Waly la. Waly Seka. Waly Seka. seen eh, mbokki gàmm yéen. wala walaay walaay walaay Waly. Eh, ki nga diggoon ndomba bi te wala léegi joxaguloo ko. walaay walaay boo ma soo ma waatee rek ma jox la ko lijjantil naa la ndomb bi ba noppi. defi ne la waaye waaye ñaari suma sëriñ yi. non sëriñ Aliou Mbaye ñu rafetlu waxtaan bi. ndeysaan waxtaan bi am na njëriñ trop. jërëjëf dañu fuy ee nit ñi. you know comme ni ko comme ni ko comme koola bi waxee. Mm-hmm. defe naa yéen kañ yéen a ngay def seen waar ñaan yàlla yal nañu ko yàlla déggaloo ak toppa. waaye defe naa li macha allah. you know su nit ñi su doon déglu li ngeen doon wax. you know uh, place bi dina nekk à different place. you know waaye ñu ñaanal ñaanalee yàlla ne yàlla uh, may fan bu gudda wér gu yaram. defe naa li li ma doon laajte mooy. Mm-hmm. su fekkee ne euh, yonente bi comme yonente bi suñu waxee yonente bi dañoo ne sallallahu alayhi wa sallam mhm. la la firi lan la ba pare su waaw ba su fekkee ne wàlliwu dafa dafa baañ mhm. dañoo ne euh, yan nañu yàlla saar si barkeel da loolu jaadu na koo jaadu bi ko yonente moo gënaa màgg ñëpp te yonente bi yaa ngi gis sallallahu alayhi wa sallam nañu wax mhm. so lu tax wàlliwu duñ ko ñaanal yërëm ak ak ak ak ak jégal moo tax so ba oustaz mu mu reelalal ma mu reelalal ñu loolu. incha allah ba pare beneen bi mooy euh, lifin dama bëgg a mu definal ma euh, laxa jaa akum la suur nga ko si ba ba aaya bi jeex. non lan la firi. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Wally Seck euh, suñu xarit boobu de mbokku gambien fii euh, waaye nag di dund fële ca Suède ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Suède yëpp ak mboolem gambien yi ñuy bàyyi xel ak Guinée yeeg suñu mbokki mauritanien yi maa li jëlal kooku wala exegut exegut nee na kon ñu taaxeerlu ko. ay ca baax a baax xaar leen ci 88 628 98 90 yaakaar na ñaari simili rek mooy mën a des incha allah ñu yëkkatee jotaay bi kon màkk ñu ko xarit suñu mbokk gambien yi nga xamante ne ñu ngi ci Gambie di ñu déglu ak ñi nga ne ñu ngi ci Mali ak su région bi ndax si FM fépp mu nga fa incha allah. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz maa ngi leen siyaar bu baax a baax. Eh, yàlla na yàlla nangu siyaar bi ñu ngi lay siyaar yow. noo tudd kontaan naa ngi seen émission. noo tudd. man la Abu Kone. Abu Kone. waaw bisimilah Abu. waaw dama doon laajte quoi mba xam dañoo ne nit bu gën a àdduna. Hmm. guddi gu njëkk bu mu njëkkee def si biir bàmmeel. Hmm. ba am naka la doomu adama lu mun na def ba mucc si loolu noonu. Mm-hmm. loolu laa bëgg pour oustaz ñu leeral ñu ko quoi. d'accord Abou. maa ngi leen sant bu baax a baax. Mm-hmm, ndeysaan jërëjëf sëñ Abou Koné Ima lii ñu jaajëfal ko xam naa léegi tey ñu xool auditeur wala auditrice bu mujj bi ci jotaay bi eh, Ima li waaw daa mel ne kaaw ñu jël auditeur wala auditrice bu mujj rek. Hmm? waaw ndeysaan bu ñëwee ñu dalal ko mu daal di tënk ñu door ñëw ci li nga xam ne moo ci war a topp incha allah ay ci Ima li jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. waaw Oustaz Mbacke maa ngi leen di ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar. allahumma amiin. alhamdulilah. maa ngi ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf ci ci yàlla réew mi yëpp incha allah. ndeysaan jërëjëf xam na ne Muxtaar sama soppe la. ndeysaan. wallaahi. wax ko de noo tudd mu ne. man Amadou tudd. Ahmadou koy ndeysaan. Ah, Ahmadou Sam. Ahmadou Sam waaw. bisimilah. ndax sa wax dëgg sama soppe la. Mhm. doon ko xam te yàlla xam na ne dama yéene woon tuddee ko doom. ndeysaan loolu de weesuut moom. yàlla xam na loolu. yàlla yàlla may la doon ndeysaan. waaw yàlla xam na ne. sama ko def fees. ndeysaan waaye bu yéen bu dee ma def nii yéen itam. ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf massa bu leen def nii waaye bu leen def nii sëñ Ahmadou Koné moom it jërëjëf Oustaz Aline xam naa moom itam yëngatu na rek Oustaz bëgg a mel noonu sopp a mel noonu yëg-yëg a mel noonu hmm. ñaari nit mën naa fees dellu toog sax du dox def dara waaye bu tàmbalee wax rek hmm. baa muy tuur ay leer du ko tey ay ca kon ñu bàyyi la dem ci incha allah ba leen toxal si nag déglu mbokk yi fi jëm doon fa yàgg incha allah waaw ci defem seen rajo 10 heures jot na ma teg juróom benn simili waaw naa fi ñu filma day saafiyan bismillahi rahmaan daal di ñëwaat ci benn xaaj bi oustaz Alioune kon moo ci tege. jaajëfal auditeurs yi bu baax a baax a baax oustaz tey jaajëfal tam suñu sponsor yi. waaw ñaanal leen jàmm ak ndam. waaw léegi daan ci bu bees de. bu bees waaw. Bokhor moom de moom publicité bi Bokhor moom ca ca Madaar la jóge ah Madaar mooy def euh, mois bu jot wala deux mois. waaw mu cabaxal ci affaire yi lu bees. Ah. ay innovation moom daal tuwaat yéeme na kay nag. mooy Madaar Bokhor. waaw. Hmm, ki ko publicité day xoromu na. noonu lay def de. ah ma daal daal moom mooy ngand rek. weeru jot daal wala ñaari weer rek ma daal am lu mu dugal. ñoom beng ñoom ak ñoom Codé Sock. xam ne li may wax ndeysaan moo ngoog. ak monsieur le directeur Moustapha. Moustapha Moustapha xam naa ñu jaare bu baax sëñ Aliou Lo moom it tabarkalla ci bis bi. waaw waaw ndax moom itam la amul kuñ ko jaar. Mhm. Euh, man euh, loolu maam jaara. taxawaayam tey lii ci kawam la dal kon ci suñ ak sa tur ñu ak émission bi. masawu ko te jaale ko suñu bàkkee. wallaay ndeysaan am na solo am na solo wax dëgg la oustaz moom itam ci nitu daara la te itam ci programme bi. si suñu sëriñ Muxtaar tëraloon rek ci loolu lay dox. loolu lay dox tabarka mooy benn jullit ñi ak luy dimbali lislaam. Hmm. na yàlla fay ko signal yu yooyu itam. wallaahu amiin la muy def lool. amiin yaa bi wàññi tolof tolof yaa kalma ñangaan yi. amiin amiin amiin. wa shukran. jërëjëf ak euh, ñoom ñëpp daal xam naa ku lim juum ndax itam ñu ngi bëgg sakkan. Mm-hmm. yàlla na gën a sakkan rek pën sëg ñoom ren suma daa rek. Euh, sa bos ba. waaw tàngal ba tàngal bëgg daa bër waaye dana ñëwaat nee ah, ah, nañ. Ah. waaw daa bër. waaw defe naa daa bër waaw xar dagul daa. ñu ngi koy jaajëfal te di ko xaar. incha allah tubaarkàlla ak bëgg a ñëw. ak ñi bëgg ñëw ñaanal tam bu baax ñuy jaar serveur bi. Mm-hmm. yal yàlla defal leen ko seen téere jëf. yàlla eh, yàlla may nu xéewal ak xéewal ak sutura. Mbacke yaakaar naa ni kon bu loolu weesoo mën nañoo ñëw ci laaj yi. mën nañoo ci lef bi. Mhm. <laughs> ayca mbokk mi nga ni moo jëkk a jaar ci buum gi. Mhm. mooy Ibrahima Diagne. Mhm. Ibrahima de nee na dafay laaj jenn waaye ngi nii mosoon na am doom feneen or mariage. mu ba takk soxna it am ci njaboot bi mu génnee àdduna day laaj ndax kële mën na doon wala déet <laughs> bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul hakim dafa wax ne waa ji daa am jabar ba noppi am jeneen doom ju juddoowul ci sëy léegi nag moom waa jooju hmm. baayam faatu hmm. ndax moom dana doon baayam waaw ah, noonu la laaj bi demee. waaw ah, noonu la waaw. Ah, d' accord. su ko defee moom. lim def bàkkaar la. bàkkaar bi nag du ko xañ ndoonal baayam. tubarkalla xam naa oustaz gars yi dañ ciy déggale leen ne moom bu fekkoonte ne dañu appliqué l'islam comme dañ ko war a rey waaw xëy na ko reyoon du fi fekkee euh, maanaam faatu baayam ba di ko doon léegi nag kon ni ñu xañe doom jee ndonol baayam bii moom it noonu lañ ko war a xañee ndonol baayam bii ndax bu ko reyoon du doon loolu kuy taxan guddee koy wax <laughs> luy taxan guddi. taxan guddi mooy koo xam ne ki du jëfe texte. Ah. Mm-hmm. day demam xelam rek. Mm-hmm. xel lay demee luy taxan guddi nag mën ngaa am matt gu tooy. Mm-hmm. Ah. xel mu rëy te day dem ba yeewlu. jàppale def nag matt la nekk du matt. ñun ñooy taxan guddi ñooy wax loolu. waaye daal lislaam moom du wax ne su fekkoon nangam am su fekkoon nangam am na gisoo laaj bi ñëw ci penc mi kii dafa nekkoon bitim réew. mu takk soxna après ñëw ci réew mi xamante wuñu fi la xar. laaj 1994 ba léegi mi ngi fi. dëgg la de. loolu mooy bu nangam amoon lu ci lislaam wax. ku ku woo ku nekk nag da koy mooñe nam koy mooñe moom. waaw mm-hmm. mm-hmm. mooy ñiy taxaw ñiy taxaw guddi. <laughs> ñoo ñuy taxaw guddi. <laughs> waa Daara ji lañ ko doon tuddee. ndeysaan am na solo bi suñu bàkkee yaakaar naa ne kon loolu am na solo ku ci topp muy Baye Mor Mbeng ñu ngi koy jaajëfal baax a baax euh, moom sëñ Mor moomu Oustaz euh, Mbeng ci duggam bi nga xam ne moom la dugg indi ab laaj. Mm-hmm. nee na daal mm, fan la nit di toll ñu ne kii war naa doon. ñu maanaam war a bokk ci miraas donn ak it fan la nit di toll ñu war koo donn moom ci boppam. waaw dafa am lu ñu tuddee <clears throat> asbaabul mhm. irsi. am lu ñu tuddee shurutul irsi. am ñu tuddee mawaaniul irs mhm. euh, asbaab yi mooy ak bokk. Mhm. wala takkante gu wér. wala jaam bu amul ko ko xañ. charte mooy kii donnu di dund ki ñuy donnu dee li ñuy doon ne fi est-ce que dund ki ñu doon ki ñu war a donnu faatu li ñu donnu nekk waaw faaw loolu kuy dund kenn du la doon mukk <laughs> wax dëgg yàlla dégg nga mhm. léegi mu des mawaani yi mhm. mawaani yi mooy ku nit doo ko donn koo bokkalul diine doo ko donn mhm. ku juddoo cib sëy du donn Hmm. rey ga nag mooy reyuk tey wallahu taala alam wa shukran ci laajum bam sala bi maanaam tey lool nag lu nit gone gone gone hmm. Hmm. lu mu tuuti tuuti lu mu màgge màgge rek buy doon bu yi amul rek dana doon insha allah maanaam daal ku rey waa juróom fi ne du bokk ci ñu koy doon déedéet dañ ko ko xaaj waaw waaw loolu nag garanté bu baax la waaw ndax bu ñu ko deful woon nit dina yàkkamte mere góor gi tam yori milliard nga kil ko. bu ko defee looloo tax surtout Baqara wàcc. ñu miraas nga jël sa wàll yow fee. <laughs> yàkkamte ni jaaje dee ba ma rey ko. ndeysaan waaw c'est imaam yi. wallaay noo gisee loolu. si te xanaa raglu rek. ndeysaan te raglu rek. mais mais nag oustaz tam liñ ñu ko bokkulu diine doo ko doon xaw naa daw yaram tuuti de. waaw. man daal loolu itam oustaz euh, kii wut lool. du ngeen ko nu ngeen ko defee noonu xam nga bokk diine geeg am am bi moom daa mel ni ñaari yëf la nag waaw xam nga léegi moom alalam ji dañ koy bàyyi rek mu dem ci yeneen i loxo comme ça xam sunu borom ak alal ni mu neex lu mu def day def day da koy defal ay garde fou ndeysaan dafa waxoon ne hmm. jigéenu jullit ku dul jullit du ko takk hmm. am déet hmm. kon nag day gàllankoor leen waaw te du ko takk kon teñ ji du fa am doonu du fa am parce que bu nee du ko takk mais nag na doon. Mhm. kon reconnaître na takk gi. koy daw na yaram. waaw <laughs> daw na yaram daw na yaram. lu am solo la. c'est charia Oustaz Mbacke jàppale fii. Mm. tabarkalla doo añ. <laughs> ndeysaan charia mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dafa yéeme. ndax nit waxu ko. wallaahi. waaw même itam métti na trop ci xool nga dend nekk ak sa soxna. ah tuubul dëgg la sëy bi dagan soxna kon nekk sa jabar ngay wax. ah soxna ak jabar daa am différence. Ah, maa ngi dégg keroog mu ne waa ji euh, soxna yi mën na ko déet. waaw mu ko wax loolu. soxna yi moom mu fa jëm. mais sax nga nekk ak nga nekk ak nit ki nekk jabaram. waaw ma bañ bañ bañ ko kenn. waaw mu génn àdduna bàyyi lu dul jeex. waaw ah yow ko góor ki doo ci doo ko doon. lu tax sa comme sëyam dagan la. non xam nga léegi kii dafa nekk. ci dëkkul ci diine ji. mu génn àdduna. Hmm. léegi bàyyi alal ju bari. Hmm. foofu amul fi naan góor ñaar jigéen bi naan loolu lislaam du ko reconnaître li muy reconnaître mooy boo jëlee yaa xam bi la ca may yaa xam. Mm-hmm. waaye nekkatul lu ñu tekki ay bàq. nekk voilà ah, nekk ah, kon alal jukki waaye bu ñu séddalee lu ñu la jox nga jël. bu ñu jëloon juróomi téeméer jox nga jël wala <laughs> million. Euh, oustaz man tomb boobu leneen li ma ci bëgg a doole oustaz bala ñoo jàll oustaz Mbaye nga baal ma. <laughs> Euh, xam nga oustaz ni suñu réew mi tëddee. dafa xaw a dafa xaw a yërëmtalu ci loolu. da ngay gis koo xam ne ab jullit la jàmbaare lool ci diine ji mm-hmm. waaye boo moytut ay waajuram am ci koo xamante ne boo bokkut ci diine ji mm-hmm. léegi nag mu dégg oustaz yi ne ab jullit du ñaanal ku nekkut ab jullit ndax léeg-léeg mu yaayam ni yaay saxe ci xol faatu nekkoon ci yeneen diine ñun la doo ko ñaanal ñeneen la buñ koy waajal ci biir barabi jaamukaay yàlla yow doo ci dugg ak yeneen ak yeneen oustaz loolu itam daa mel ne mat naa kii tuuti bu àqee daa amee bu waa ji dëgër rek mhm. dana xam li li sariya teg fii hmm. ndax su ne Aïssa dafa toog tantam ñëw seet si ko day dund mhm. avant dara xew waaw dem ci yonent bi ne ko ah, man de sama tante ñëw na mhm. bokkugul ci diini ji nag mun na ko demal gàttandu ko te dalal ko nga xam ne su nekkoon bu ko dal lu métti métti da da ko koy xañ ak xëy da mooy dimbali nit ci loolu bu àqida bi amul rek sentiment moo fay nekk bu fa sentiment nekk mën ngaa dugg ci yu baaxul mas naa la mas naa la ko nettali fii ci jataay bi mhm. euh, bu Oustaz Alioune nekk ci benn opérateur nga nekk ci benn mhm. mu bëgg laa transféré mhm. crédit du mën a nekk loolu ay yëfi ah kon bokk leen ay réseau de ah bokk leen bu ngeen bokk réseau du nga mën a transférante daal sax. loolu nag oustaz crédit war naa bokk ci waxtaan yi ñu war a gën a yaatal kon. waaw di préparer nit ñi. nga xam ne ku doonub jullit da ngay xam texte yi ak sharia ak yenn yi jàpp ne lii maanaam génnee sentiment ndax ñun yërmande dañoo xaw kii lool. peñ peñ ci mais teg yëf yi ci ku màgg man waaye duñ ko jàng. Mm-hmm. suñu diine dañ koo teg ci ku màgg man waaye duñ ko jàng. Mm-hmm. buñ ko jàngul nag ay sentiment rek la ñuy doxee. Mm-hmm. wax nga dëgg de. en tout cas en tout point diggante bokkul koo bokkul diine kii. Mhm. jar na gën a yaatal ndax man ci takkum sax takkum sax jar naa xoolaat. Mhm. sax da ngay jékki di benn waaye jigéen jël jógee rek daan eh, kii dama dañoo bëgg ñu may ko ndax day tuub tey. waaw tuub tey ñu may ko tey. waaw loolu jàmp na di. waaw <laughs> aw imraatin ginnaaw moom ginnaaw moom nangu na ku ko ku ko ku ko dóor marto hmm. nangu na ku ko def ay dóor hmm. Euh, c'est ça man ku koy def sama kër dama naan la man kat ginnaaw nee nga tuub na. man de danaa may. waaye nag su doon sama doom la day danaa bàyyi waa ji juróom benn weer jàpp juróom ñaar. waaw kay ba mu julli. ba xam lii mi def la lam déet. Mhm. su fekkee nopp kii dong la. Mhm. ëllëg si biir mën na ko fi nu ñukk dala ci lam nekkoon. mais nag oustaz en général itam kooku programme ak programme ki muy tuubloo day nekk benn. maanaam laataa muy tuub li mu doon def. fi ne bu tuubee itam yow amu ci luy soppeeku. waaw ba tey ndax mosoo toog moom ba julli jot nga ne ko maa ngi julli ci. ba tey mosoo tudd yàlla. maanaam ci safaan ba nekk bu ngeen boo nee tuub li nga doon def maanaam bu koy def mooy la. la forme la waxoon ne su ma doon jébb jébbalu nangam laay doon ndax li may bàyyi du bari. <laughs> mosoon naa la nettali mosoon naa la nettali xale bu jigéen bu waaw nit bëggoon. Mm. mu ne ko bokk ñu diine. mënuñoo mm-hmm. sëy. Mm-hmm. léegi daal da dugg sama diine ji. su ko mm-hmm. defee nu sëy. ku góor ki ne ko kon baax na. mais man du ma ci dugg ci. Mm-hmm. rek dugg naa ci parce que dama la nopp. Mm-hmm. maa ngi dem gëstu jukkoon. ndeysaan fii ak juróom-benn weer peut-être naa la tontu. ndeysaan sëñ Mbacke. Mm. di gëstu diine ji dem ci Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñoom Oustaz mar sekk nangam nangam fu ne mu dugg fa. dugg ci téere yi. ba ba mu convaincre ko mu dugg ci. ndeysaan. del siwaat xale bu jigéen bi kaar ko tàllal ko loxo mu ne ko déet. Mm-hmm. ndeysaan. taxawal mu ne ah mu ne ko sa diine ji day tere góor jox jigéen kum takkut. <laughs> moom de moo koy mujj tuubal. <laughs> waaw ne ko nag man ñëw naa léegi mais ñëwuma pour takk la. damaa ñëw pour dugal la ci diini ci ndeysaan ndeysaan yaram daw. wallaay ndeysaan. yaram daw. nga wax rek kon ko wax ne naan da ngaa dugal ci yëf ah. bu ci duggee daanaka yàgg moom. la. wallaay ndeysaan. ah loolu xam nit daal day njëkk a nopp. day njëkk a nopp diineem ba noppi. a nopp keneen ku amul diine nga nga seexlu ko. jax na tàkk kon nag bu leen toxal si nag déglu mbokk yi fan jëm doon fa yàgg dañuy indi rek suñu partenaires yi te dellusiwaat. alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waahibun naa fi fi lmadayi saafiyan bismillahi rahmaani rahim jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo kon nag juróom-ñaari simili moo te euh, onze heures jot dellusiwaat nañ ci jataay bi oustaz Alioune lu ci tege jaajëfal euh, partenaires yooyu bu baax te ñëwaat rek mbaa bi ñuy daane sànq ñu woon ci miraas bi nga xamante ni <laughs> miraasum miraas daal lu doy waar la. waaw te oustaz léegi fi ne nii daanaka booy xool dañuy séddale mais sama laaj bi ma la bëgg a toftal muy sama laaju bopp mooy. ñàkk miraas gi ñuy miraas sunu këri maam yi ak ñàkk miraas gi ñuy miraas sunu tooli maam yi ci jamonoy jamonoy colonialiste ba léegi si doom dee nañu sët yi dee nañu sët sëtaat yi des ci cooli nu kor yàlla bu dee dëkk boo xamante ne dafa commencé am valeur goudron commencé faa jaar aéroport commencé faa jege cooli nu kor loolu kan mooy toor euh, penc mi sunu borom dafa jëloon miraas ne yonent bi duma la ko jox nga di ko def duma ko joxub sëriñ kenn duyuma ci man rek maa koy defal sama bopp wax ku la ngay am ca cër ya su nit amee nag alalam def ko waqf ay doom nangul ko ko loolal du dugg ci miraas waaye lépp loo xam ne du loolu ma mimma qalla minhu aw kathur daa war dugg ci miraas mi yusikum laahu fi ko wa shukran est-ce que kon daal ku bëgg sa njaboot mujj ci bennoo mujj ci juboo bay bon nga def li yàlla santaane rek ba ñaan kër gi nañ ko bàyyi dëkkee ko ndax jigéen ñi amuñu dooleeg xale yi màgguñu day day gën a lëj rek day rek tabarkàlla ba ba baa yet di jóg saan am na solo imaam yi ñu dem waa kay ñu dem jërëjëf oustaz ci tontu yi am solo yooyu Abdoulaye Cissé yéen a moom itam waa Mbacké ah. waaw ok oustaz Abdoulaye Cissé mi ngi woote ci Italie. moom nee na foofu ñu nekk ci Italie. dañu commencé defar carte d'identité biométrique. numérisé bokk xam nga loolu demee noonu. ñun nag ñoom dañ lay laaj buñ boo ñëwee ndax suuf yàlla dogalee nga génn fi àdduna. ndax mën nañoo jël say cër mën nañu dog nangam mën nañu def nangam. Mhm. soo tontoo baax soo tontoo ni parti ñu ne kii di rien conscient ku ku waxul daal nangu nga waaw ci yi fiq bees la bokk mm-hmm. yi fiq bees waaye daal ab jullit <clears throat> liñ ci mujj tënk mm-hmm. mooy sañu te jaay ab cëram sañu koo maye mm-hmm. bu faatoo ñu robe ko noonu nu ko robe woon kuñ ciy laaj ndax danga koy maye boo ne déedéet kenn du ko may sab cër boo ne waaw nag mën nañ ko may mën nañ koo jaay. ndeysaan. kon nag neel déet rek ginnaaw sa diine da koo tere. wala am nga ci huwa. baax naag baaxul wala daga naag dagarul. yonent bi nee na li xaraam leer na li dagar leer na la ca diggante ba ku ko fay bàyyi rek sa diine set. wa shukran. est-ce que kon nag jërëjëf kon nag yi naa ni. Mbacké <coughs> jëli yàdd mooy topp ah? <coughs> jëli yàdd oustaz moo ci topp waaye oustaz la foofu maanaam tey ki nga xam ne dafa faatu it xam nga kii faatu moom faatu na ba noppi rek ñu war koo denc <coughs> am koo xamante ne xëy na problème mu xol la am wala benn partie ci yaramam te buñ jëlee kii defal ko ko mu dund ak yooyu loolu itam jàppoo ne <laughs> war naa man nekk yàlla xam na yàlla xamal na ne léegi loolu la ah. nga jël xol boo xam ne day wax laa ilaha illallah jox ko xol bu wax yàlla dee na hmm. Hmm. musiba la dëgg la ah doy na waar de am na am na sax kii bu ñuy bu ñuy jaayee dégg naa lan la mooy kii bi eh, lan la di neer xuma kii. waaw eh, li ñu naan nit ki ñaar la ciy am. te xale ba doon raxas oto. ba rien rien waaw rien <laughs> rien dégg naa ni mu seere nga <laughs> léegi nag boo ko daggee jaay jaay nga sa bopp. non mais ñaar secours bi ngay jaay. waaw ah, d'accord bu bu nit daggee ab cëram jaay jaay na boppam. waaw dëgg la sax boo ko wootoo boo ko jaay. wallaahi nit daal loolu. foo leen kon ndax eh, xarum tabaski da ngay rendi sab xar ba noppi der ba dara suñu bor yonent bi nag boo ko jaayee bàkkar. Mhm. dootu amum xar. waaw bëggatuma nga ciy jaay. oh kon kon maye deret bokkul ci cadre boobu. maye jaayoo da ngaa dégg li nga wax. da ngaa maye. yaa ngi dund nii. Mhm. nga maye. Mhm. da ngaa maye jaayoo ci deret ji nga maye. waaw est-ce que. deret amul usine bu koy defar. ñëw nga maye. Hmm. loolu moom amul benn problème. ce que doy na waar de. en tout cas léeg de oustaz nag bu ñu ko indee ci ak nite. ak kii rek wàllu sentiment dañ naan daal seen solidarité maanaam l'islam daal solidarité am kon def na rek ndax am na mort naturelle yoo xam ne waa ji ay organes am yàquwul oustaz. sëñ Mbacke feebaru bu dee tubaab bi dégg naa kenn xalaatu koo suul dañ koy yóbbu ñu. léegi léegi soo soo dellu see ci lislaam hmm. moom nga wax ne ndeketi yow moo am solidarité. ci nan oustaz ci nan. moo di nit wala xad karam naa bani aadama. Hmm. ñu teral ko. Hmm. mu am ay cëram cër yooyu mu yaroon leen ci borom bi subhaanahu wa taala. nangalu ko. mu dee ñu jël cër ba sampal ko benn bandi. Hmm. mais sax xam nga yi am matière la boo xam ci suuf si la jëm. d' accord naa ci ruug yi ruug yi dégg naa moom la ñuy teral ak yooyu mais cër yi ay ay sax a koy coob après. même bu ko sax yi dee coob sax yi coob ko moo gën mu jox ko benn bandi. parce que baa bi jël organam yooya bandi bi jël organam yooya. waaw <laughs> bandi bi jël organam yooya. te sunu borom ne wa taawunu al wala al ismu wal bu leen jàppalee bandi mu gaaw a dee moo gën mu yàgg léegi bu ñu ko defalee ku baax nag bañ koo defal bandi ah, lool nag lañ dul xam ginnaaw duñ ko xam nag léegi mm-hmm. nu toog rek ne bàyyil suñuy cër rek mais sax kon kon inconnu yi ñi xam ne dañu dee te xamee fu leen Mm. ñi nga xam ne dañoo dee tax xamee fu leen xale yi nga xam ne ñooy jàng nit ak yooyu ñu jël ñooñu yóbbu leen ko ban bàkkaar rek mooy su boobaa wartu doon cër boo nit la bu tooy xepp wala buy xepp-xepp ñoom seen yooyu encasable yi kawas yi mën nañ ko cee def wala dessin mm-hmm. waaw yaa ngi yëngatu ko heure bi jot nag kon bu leen toxal si nag déglu dañuy ñëw rek tabarkàlla yi tënkal leen xibaar yi bitim réew ci tubaab tënk ko te del siwaat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama واهب النافع في المداء السافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بتلهاج اللمدة جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله sallallahu taala alayhi wa sallama haysu xuriyaat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin jërëjëf jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo une heure onze heures jot na ba tekk juróom-ñeenti simili lati wahidal muttaquuna balha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu kon nag beneen xaaj bi te mooy ñetteelu xaaj bi bi ci mujj ci lañu war a dugg yan mooloha ilala bila mana wala kon nag tabarakallah oustaz Alioune lu ci tege jaajëfal euh, suñu mbokk yu baax yooyu lee ci si suñu mbokk moomu la di euh, Aliou Diarra rédacteur en chef di gërëm Marie Ndiaye 12h ak 13h ñoom daanu ñëwaat incha allah ànd ñun ci waxtaan wi Mbacke ginnaaw laaj bi nga xamante ne mooy Abdoulaye Cissé euh, jëliyaat jëliyaat oustaz man jëliyaat laaju laaju miraas mi oustaz daf ma dama dama la bëgg dama la bëgg laaj sama laaj bopp rek hmm, laajaat waaw maa la bëgg laajaat hmm. oustaz kuy ku ne jullit la hmm. takk ab jullit te doo julli weddoo julli gaa mais doo julli est que sëy boobu dagan na waaye jullit la yow nee nga jullit la waaw léegi jullit bu sàggan am na ak jul bu sàgganul mhm. waaye nangu na julli am nit ki soo ne ko ndax julli farata la mën la waaw mhm. sooy jullit la mhm. bu ko defee bu ko defut léegi nag dafa sàggan maanaam muy taariku salaat ak ñoom seen yooyu waaw ki nangu tox laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah nag kooku moom du jullit kooku moom dul may jabar waaw waaye boobu nag nga wax nag ñàkk def ko moom dañ lay yedd après léegi su booba dañ koy laaj rek Mm-hmm. ndeysaan Mbacke jëw yàlla ci topp moo ci topp oustaz moom dafa ñëw ci alquranul karim suratu naj mi moom la joxoon nee na aaya ba 10 la bëgg nga ñëwal ko ci mu ngi tàmbalee suñ borom di wax naan bismillahi rahmaani rahim wan mi isaa hawa maa dalla saaxibukum wa maa xawa wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuxa jërëjëf ci laajam ba solo boobu sëñ Mbacke xam nga bi ni wax ci biir waxtaan bi sànq mm-hmm. euh, dañ ca joxoñoon tukki ba yonent doon tukki mm-hmm. yàlla ne ko gaa yi daje nañu ñu ngi lay xaar baytul maqdis Moustapha waaw bi muy dem kon ba mu leen fekkee baytul maqdis ba mu noppee dafa am nag beneen tukki bu ca tege comme fekk nga leen baytul maqdis waxtaan ngeen def ngeen assemblée général wala def ngeen congrès ba yow la ñu fal indil document bi ma signé leen ko léegi nag loolu la loolu la suurt nañ moom di jàngale mhm. wa najmi ida hawa ni giñ naa ci vidéo ba ndax kon tukki bi kaw la jëm mhm. foofu lay jëm bu ko mhm. su si asra mhm. mu yàlla looy giñ mu ne maa dalla saahibukum wa maa xawaa mooy ki leen di nettali tukki bi jóge ba masjidil xaraam dem masjid aqsa jóge fa dem feneen sànkuteeg ñàkk xam taxul mu wax leen ko topp bakkanam taxul mu wax leen ko ndax moom wa maa yantiqu anil du waxe ba du waxe bànneex. ndeysaan ci yooyu. waaw <laughs> in huwa illaa wahyun yuuhaa lu génn ci gémmiñ gi maa ko dee ci noppam bi. te sallallahu hmm? lu génn ci gémmiñ gi. Hmm. maa ko dee ci noppam maa ci noppam. allamahu shadidul quwa bool daa ko professeur bu tudd shadidul quwa. Hmm. professeur bu tudd <laughs> lan mooy shadidul quwa. mooy mooy ku ku ku ku dëgër kàttan. ku kàttanam ëpp kàttan yëpp. du mirratin dem la ak dellu si fañ ko yem am na leçon ba ko doon ne mi ngi woon ci aytu yu kawe yi di dem ak moom di dem moom thumma dana fatadalla mu jege ba lang jege ba àgg ba sës mm-hmm. fa kaana xaaba xaw aw ba tol ni xocc ak fet fet ak xocc ga aw àdduna wala mu gën koo jege waaye yéen misaal mais ngeen di dégg àdduna bi neexut a dégg fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa mu déey ko lam ko déey lam ko déey nag du lépp la ñuy jot du lépp la ñuy xam la ñu ci intéressé daal dox nañu ko lañ ci intéressé wut intéressé wulut suñ yoon nekku ci ndeysaan mooy su laaj ba solo boobu. am na na ba aaya 10 oustaz hmm. hmm. wax euh, te oustaz Mbaye la wax ne waskur jooju nga xam ne suñu borom daa am ay jëmm yum tudd ci alxuraan. Hmm. nga di ko wax jëmm yooyu liggéey ci lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ñëwee mottali ko. ak ni mu demee dajee waat ak ñoom suñu borom defal ko dossier nag ñoom ñëpp signé ci. laaj bi ci loola la bokk. alxuraan ji mu doon wax itam loola rek lay gën a dëggal. waaye oustaz ñaari baat da cee nekk yoo xam ne oustaz Mbaye yu yéeme la. wala ñett mooy benn bi wama yantiqu anil hawa ndeke loolu itam ci garantie yonent bi alayhi salaatu wa salaam am la te ku dul moom amoo ko. Euh, damay seetaan docteur Ahmed Lo. ndeysaan. yàlla na ko yàlla yokk wér. amiin yaa rabbal aalamiin te gën a soqal daarul istiqaama. amiin amiin yaa mu doon waxtaan ci tagg yàlla yi tagg yonent bi ci alxuraan. alayhi salaatu wa salaam. mu ne nit ñi dañ yam ci way naka laa ala xuluqin azim. Mhm, mhm. mu ne waaye. Mhm. wa in tutiuhu tahtadu ku ko topp jub nee na gisul tagg wu gën a rëy woowu wallaay loolu tagg lu ko gën a rëy nee waaye it wa maa yantiqu anil hawa gisul tagg wu gën a rëy woowu mm-hmm. tey mm-hmm. kii du waxe bànneex waaw mm-hmm. nee na loolu loolu ndax loolu mucc ci daa jafe nee na jooju jikko kuñ ko tappal waaw moo tax nee na yàlla bi mu waxee ci yonent bi benn affaire la ay waxam du ci fay bor ay xam du ci leble. waaw <laughs> du mer ba mu feeñ ci du bëgg ba mu feeñ ci. docteur Ahmed moo doon jàngale jàngale ma am solo boobu. oustaz Mbaye beneen jàngat bi ma ci def nga baal ma ko. Mm-hmm. bi ma ci gisaat oustaz mooy professeur bi. Mm-hmm. ni mu ko joxoñi ma bëggoon nga jegeel ko euh, yéen professeurs yi. Eh, eh, loolu seenu melokaan la war a doon yéen professeurs yi. moo di sunu borom. <laughs> àll moo sadidul xuwa ak euh, soo miratin fastawa si melokaan yooyu. sunu borom mooy jox Jibril. Mm-hmm. Jibril di indi. mel ni professeur buñ jàngal tàggat ko spécial. ne ko del yóbbu. del roñ rek di ko yët. boroñee yët ko joxe ko ko son. mu sotti ko ci ndabul arab. waaw kooku mooy Jibril mooy àllamahu moo ko jàngal. moom nag comme Seydou Louxwa borom kàttan la kàttan ci yëpp. ndax jàngalekat man na léeg-léeg mu am kàttan fii néew kàttan fële am na jàngalekat yoo xam ne dañu spécialisé wu fële fële mais fii moom zéro nga ne man prof mat laa kii ñëw ne man prof anglais laa kii man prof allemand laa gis naa sax prof japon japonais donc loolu seddul xwaa nag dafa daj këpp yëpp nga xam ne lépp la ci man te am na kàttan goo xam ne gin mën a ko ko defee monsieur Koran ci laajam maam solo bi. am na solo imaam am na solo. Euh, boo bëggee yéem nit ñi nekk delloo ci alxuraan. dëgg la dëgg bu ñu hmm. fu ñu mën a référé wu. boo référé ci alxuraan rek. Hmm. ñu weddam ndeysaan bañ a taayal waaye am kàttan ci li ñuy def. Hmm. te kàttanu xam ko man ko. Euh, oustaz teg na ci beneen laaj imaam li. mooy nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam turam yi wan tur moo ko ci gën a neex. keroog bi muy tukki tukkeem bi gën a rëy ci tukkeem yi. tur wa ko yàlla waaxe moo ko ca dàqal abd ndax sunu boroom def ne subhaanala si asra mhm. waxul bi xalilihi ndeysaan waxul bi nabiyihi mhm. ah mhm. bi ndeysaan bi bi bi bi rasulihi <laughs> mu ne bi abdihi ndeysaan tur woo ko ci dàqal ci tur yi ndax moom la ko yàlla wooyee sëñ Mbàkke tur woowu saa boo xëyee moom ngay bëgg a doon hmm? bi ngay julli suba yaa ngi wax iyaaka. loo ci teg naabudu jeex na. Mhm. ndax bëgg a doon abdu. waaw naabudu abdu ñoo ànd. wax nga dëgg nun gee ci yokku rek. <laughs> jeex na. nun mhm. ñëpp ci ñu xëy. iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'iin. Mhm. bu tisbaare iyaaka naabudu wa iyaaka bëgg rek suñu borom ne la. abdu nga léegi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ndeysaan bëgg buur bu bëgg laa gën. jeex bis bu xëy na la abdu nga rek. te abdu mooy tekki ab jaam oustaz. jeex na. bu la nangulee ne jaam nga. Mhm. mbàkke sa affaire bépp baax na. kon suufee ci kanam yàlla ak yëkkatiku la ci lu dul maanaam ci feneen fu dul yàlla fu ne ak yëkkati la. waaw suufee ci kanam yàlla. Mm. muy yëkkatiku gi. waa ji dafa laaj morom ñu ne ko waaw yow liggéey mu ko chauffeur laa ah koy dawalal mu ne ko sëñ Fallou. ndeysaan rek mu téye ci gémmiñ gën. ndeysaan mbokk yow de ren ko doyal ceeb. boo ko Alioune Mbaye la ne ko tey nga lekk ceeb ba doy. moom lekk ceeb gi la ci yéem. voilà maam li muy sëfoor sëfoor nga xam lu kii waaye moom namoo ko ci loolu. mais mais Oustaz Oustaz Oustaz waxee wu ma ko woon noonu nag waxee wu ma ko woon ndaw wax ca. <laughs> ndaw lekk soos. <laughs> ndaw ah. <laughs> la de loo ci wax rek la yow la xam nga Oustaz li ñu wax ci abdu gi. dafa doy waar Oustaz Alioune dama la ciy nettali eh, eh, xutba bu ci imaam Ahmad daam def ci ajuma ji ñu génn. waaw daf doon wax ci yonent yàlla Isa mm. bi mu bi mu juddoo ak fi mu jaar ba judd mu agsi nag ci déclaration Isa bi waaw mu ne Isa dafa tontu nit ñi aw xeetam laataa ñu koy tuumal waaw moo tax bi muy wax niwut inni rasulullah waaw waxut inni nangam waaye mu wax ne inni abdullah ndax dafa mel ne dafa yëgoon ne bis dana ñëw ñu ne ko doomi yàlla nga mu ne xaaral bala ngeen maa bala bala ngeen maa jiiñ dara mhm. miimoon naa ko mhm. oustaz nag mu misaalal ñu ko meneen misaal moo ñu jege mu ne ñu Serigne Touba waaw moom moom imaam Ahmad Dam ajuma ji weesu mu ne ni ko ni ko ni ko njabootam gëme waaw ak niñ ko bëggee. waaw bu bàyyee woon boppam rek. bañ a wutal boppam wenn sirno waaw ñu bàyyi turu boppam. waaw kon danañ danañ danañ ko wutal maanaam tur woo xam ne. danañ ëppal ci moom. mu tuddee boppam moo tax mu tudde boppam xaadimu rasul. jeex na <laughs> waaw tooxut xaadimu Muhammad ndax kon nit lay doon. waaye nag rasul gi maanaam maanaam risaala gi ne ci man daal mission boobu ab jaam laa ci loolu. oustaz loolu nekk di diggin wu xóot a xóot. moo tax gis nga suñu mbàkk yi. jàngalekat yi. Mm-hmm. il faut nu nu nu nu nu souligner leen. Mm-hmm. njàngale mu rëy ak noonu te am solo mm-hmm. mm-hmm. njàngale mu rëy te am solo mm-hmm. yàlla na ko yàlla fayal oustaz Ahmed Dame tax léeg-léeg mu xam ca min waaw <laughs> ndeysaan moom moom mooy sama mooy sama sëriñ ah waaw ah, waaw waaw mooy sama sëriñ non man de moom vraiment yow moom donc ma ko lool quoi <laughs> moo fi nekk yi mu wax yëpp am naa ci xalaat ayca <laughs> moom dafay sa sëriñ même sax am na solo tam jërëjëf oustaz jërëjëf oustaz Dame Ndiaye wiiw ci waxtaan saa waxee ñun de ñu amal beneen dégg-dégg wallaay ndeysaan ca pap Pape Pape Demba Mbaye waaw sama mbokk moom sama doom bàyyi woon nekk ca France dem Demba Mbaye ñu ngi lay nuyu Oustaz Pape Demba de daanaka dafa indi ay commentaires yu yaatu rek ak mbégteem ak kontaan na yu su la ñu ne dem taxawaayu Mbàkke si la ci ni ngay euh, loqatiwaat laaj yi mhm. di ko tegaat ci dimension bi nit ñi mën a dégg surtout les jeunes noonu la je vous dis toujours c'est un ailier waaw noonu mhm. axe central la <laughs> mooy centré ah mooy centré waaw ok ailier la ndeysaan donc yal na yàlla fayal nu ko. te gën koy yokk barke. amiin te yàlla bu mu bàkku. amiin amiin yaa rabbi ehm, nee na su fekkoon te ni moom président de la république <laughs> waaw moo tax ma ne ko na nekk candidat budget bi <laughs> budget budget budget budget enseignant yi. moom programme am baax na programme bu baax la présenté. Ah, wolof wolof nee na. <laughs> Ah. loo ne su ma doon buur. Hmm. buur a nga ca. ndeysaan. kon daa egg seegul. ah jeex na. wolof nee na loo ne su ma doon buur rek. buura nga ca buura nga ca. day ndeysaan tey te lu jot yomb. kon waaw kon nag na saawan baawaan. <laughs> waaw la ma la ma sama wajur wa. sama wajur wa la nekkoon ca. Mm-hmm. Pikine. ndeysaan Babou Salaam. ndeysaan waaw góor gi Ibrahima Sarr. ndeysaan waaw loolu la ñu tontu woon ci suñu waxtaan yi. ndeysaan loolu moo doon buur rek. buura nga ca buura nga ca. waaw ndeysaan. parce que wax ju rëy ju rëy gi noonu. waaw ju riche te jaayatu. xam nga léeg-léeg nga toog classe Macky Sall gi joxe ay leçon di joxe ay moral di joxe nanga fekk na ki ngay joxit bu ngeen doon mu jox la. lay ndeysaan loolu noonu bu rek buura nga ca. jax na tàkk non comment oustaz. <laughs> c'est euh, Mbacké. wallaay maa sunu jigéen bu baax ba madame Aïdara. Mhm. nekk ci trésor moom waa trésor yi. ay siyaar la indi moom daa mel siyaar dafa dafa mujj dagg sax. Mhm, ndeysaan parce que ziar yi mu indi ak contribution yu am solo yi nga xamante ni. Mhm. parce que boo laalee crédit ne rek. li nga laal ñëpp. ndeysaan. moom boo nee ay dara kon xam nga ni. da ngaa laal waaw ñoom séddu nañu. Mm-hmm. waaye rafet bi mu rafet. Mm-hmm. moo tax mu bëggoon cee malheureusement mu d'accord na nga sa sa yéene àgg na. Mm-hmm. Euh, bàcc siis mooy topp Mbacke. bàcc siis kër ma daaru Oustaz ñu ngi koy jaajëfal moom itam lu jiitu ay taxali xaatam dafa jiital ab laaj neen ndax jigéen mën naa tudd doom. jërëjëf ñoo ngi koy nuyu moom bàcc siis di nuyu waa kër ma daaru yëpp rawatina soxna Anta Wade ak euh, suñu mbokk moom Tafsir Moussa Gassaba. ndeysaan kaw kaw. waaw jigéen jigéen mën naa rendi mën naa tudd mm. uhuh. mën naa tudd alxuraan ak ñuy nettali mm-hmm. mariama mii mm-hmm. yaay ma ko tudd mm-hmm. waaw mariama yaay ma ko tudd inni samaytuha mariam jeex na <laughs> ndax def noonu yàlla man de doom ju góor la bëgg danay ba mu yàgg mu am doom ne yàlla maa ngi la yëgal sama ngénte waaye tudd naa ba noppi yëgle gi wutum xar taxut ak <laughs> <laughs> tudd naa ko ba noppi wa inni sàmmaytuhaa Mariam bi ma ko tuddee ba noppi nag dénk naa la ko wa inni u'iiduhaa bika wa dhurriyyatahaa mina shaytaani rajiim bi ma ko tuddee ba noppi dénk naa la ko moo tax yonent bi alayhi nee na ku a juddu hmm. ñëw na fettax la hmm. ne la nii yaa hmm. mu ne ba mu des Isaa nga xaw ko waree nekk xaritam tuuti. waaw. <laughs> daanaka mii moom moo garaaw te teel a ñëw a ñëw lool. moom kay tubarkaal dafay yàgg surtout fii surtout ci hôpitaux yi nga xam ne. wala bari bi amukaay doom yi. kenn du nga xam ne ña fay nekk seen yu nekk ci yooyu. Hmm. bala ibli di fet tax doo ko yëg. moo tax booy booy fe booy fer rek mokkalum pecc. dëgg la ah kii moom kay da nga koy teel a jàng sax waaw Mm-hmm. ndax dafay teel a ñëw. ndeysaan <laughs> gisoo mooy nag ba mu des Isa ibnu Maryam. waaw xuma nan gàlle niñ mokkale ak ñoo mokkal xale yi. waaw mm-hmm. ñooñu noonu. waaw <laughs> am na solo Oustaz xam naa loolu dama ci am benn laaj Oustaz Mbaye. Mm-hmm. boo xamante ne Oustaz ngeen baal ma encore. Oustaz léeg-léeg jigéen ci jamono ji nga xam ne sëy yi daa bari ñool ñol mu nekk góor yàlla dogal mu jël <coughs> ba noppi itam tàqaliko wuñ sax waaye mel nañ ne ak fay am na ci ku mm-hmm. jigéen ci dem féete ji këram mm-hmm. ku góor ki xëy na bañ koo dundalati joxewul dépense laaju ko naka wisit yi mm-hmm. joxu ko dara ba yàlla dogal mu am doom ndax ku jigéen ki mën naa tànn turu doom ji wala turu doom bàyyee ko war a tànn wala lool nan la war a taxawee foofu waaw la gën a rafet daal mm. wata shaawurin ji waxoon mooy nit kenn du ko fasi ci mer kenn du ko mere mere doomam kenn du fase doom fase fase nay fase doom mhm. kon ñu waroon waxtaan mhm. waaye bu ñu waxtaanu tin nag du tax ginnaaw fay rekk am mhm. tas amagut bu yaay mukk di wutal tur doom moom bu mu topp kale na na ko am naa doom doom ju góor la amul la ju jigéen bu fekkee daf ne colloque nag joxewul wenn tur nag. Mhm. su boobaa waa kër gi bu ñu tànnewu tur tuddee ko tooñuñu kenn. Mhm. bu joxee bu joxewu tur nag te ki mu joxe yaay ji kooku arrangé wu ko te yaay ji doon jëndal boppam ay ordonnance war a def lépp. waa a continuer yar xale bi ci jëndal boppam ko wax ne yaar moom doom. lu tee rek ki am doom ji mooy. wa alal mawludi lahu. Mhm. waaw baay bi moo am àq ji. moom la xoon wa alal mawludi lahu. waaw kon moom moom doom ji toujours rek. kon daal bàyyi nag war nañoo nite quoi loolu métti na trop. <laughs> en tout cas en tout cas léeg mu am ñol-ñol ju rëy na ci penc ci wérante ndax tam léeg-léeg jigéen am mënal boppam lool sax yàlla dugal tudd doom ci diggante bi xëy na te mu yaakaar ni tax na mu yaatu ci ba war a mën a sànni tànni tur wala sax mu njëkk ak xulóog doom ci moom daal li nga wax rek ci tasawur concertation ma ci solo ndeysaan man de naa ñu tuddee sama baay fekkee jàppoo keneen bëgg naa ñu tuddee sama sëriñ bu fekkee jàpp ko bëgg naa ñu tuddee sama doom mhm. yooyu yëpp ay waxtaan la mhm. ndeysaan mooy wax ne nit gi dem ba yow góor ki mhm. nga xam ne doom da ngeen koo bokk mu ko sampal sa xel acca acca bàcc siis benn laaj rek la amoon ah? waaw benn laaj boobu la amoon ay commentaire la ci rek wax ne wax maanaam enseignement ak éducation te nee na daa mel ne dañuy enseigner waaye éduqué wuñ kon bit sa éducation bi dañ leen koo war a jox yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen di éduquer <laughs> loolu rek la ci toftal boobu xam naa bëgguma fa añee ji ko ak Moussa Gassama ak ñu sant wadd mun toorkaal kon jëlee sunum añ Abdourahman moo ci topp euh, waaw Abdourahman mooy ci HLM Mbàkke mm-hmm. euh, moom dafay laaj ni inna a inna salaata tanha anil fahsha wal munkar mm-hmm. loolu mm-hmm. sunu borom moo doon jàngale yi yi julli def ci nit njàmbaar gi muy def ci nit fulle gi muy def ci nit mandre gi muy def ci nit tabe gi muy def ci nit ba agsi ci raxas gi muy raxas jikkoy nit mu ne inna salaata genn julli gu baax inna salaata genn julli gu baax hmm. gu njàpp la mat rukkoo ya mat hmm. sujjóot ya mat njàng ma mat mhm. borom teewlu ko mhm. tanha anil fahsha wal munkar borom du def njomb téef lu waa penc mi naan lii noo ko defe mhm. ci innal xasanaati yusibna sayyi'aat loolu tam alxuraan a ko wax sunu borom daa wax ne effacer tableau dana tax tableau set effacer tableau dana tax tableau set mu ne kon nag def lu baax dana tax li nga defoon te baaxul jóg fi Hmm. waaw. def lu baax dina tax tableau set. waaw efface hmm. tableau dina tax tableau set. Hmm. Euh, yonent baa ngi koy jàngale ca nam doon jàngalee daawa. waa ji daa ñëw ci jàkk ja di saw ca miir ba. ñëpp yi ba ko mu ne déedéet yëkkati loxoom bu tedd ba ñëpp de tekk mu ne diw jëlal jëlal bidon bee wala jëlal baag bee nga def ci ndox dem sotti ko ca saw ma. bi mu sottee ndox mi ci saw mi saw nekkatu fa léegi sëñ Mbàkke mm-hmm. Mm-hmm. yonent bi xamal ko saaba yi ne leen yu xasanaati mm-hmm. na day sayiaat moo tax ku yëpp yu góorgóorlu ci ay xasanaat wa tabaarkalla ndeysaan wa shukran tey xanaa loolu tax mu tekkee ne zalika zikra li saakirin wallaay ndeysaan <laughs> am na solo trop te te nag ci xasanaat yi rek euh, Mbàkke troisième laay mu ni inna lillahi wa inna ilayhi wala loolu noonu waaw xeet yooyu la waaw inna lillahi wa inna <laughs> ilayhi rajiun kan lañ koy wax. waaw ndeysaan. kan lañ koy wax mooy. wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf. wal bu ñëwee. nga ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ah. maanaam koo xam ne kii dafa dafa tiit avenir am. Mm-hmm. wala dafa tiit ci nangam. léegi la koy cay génn mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu woyof. Mm-hmm. mu ne euh, wal xawf min al xawf wal juux mooy nit koo xam ne kii dafa xiif. Mm-hmm. ñaari façon xiif yëpp nag. ndeysaan xiif ba nga xëyee ba léegi léeg ko. Mm-hmm. wala xiif amoo xaalis. Mm-hmm. waaw xiif <laughs> amoo xaalis ndax sëñ Mbàkke koo seen mu këpp kees daa xiif. wallahi ñu suur kenn du ci këpp kees. dëgg la de xiif a bari façon. waaw mu ngoog. waa ji yor kaat kaat yor saako ceeb këram lekk gi ne guut ci kanamam waaye ndeke daa xiif moo gën a xiif Ismaïla Yacine. loo ko dénk mu ne ko foofu. jeex na dafa xiif hmm. Ismaïla man fu mu nga fa la ca yéesi. <laughs> moo ko moo gën a xiif. moo ko gën a xiif dégg nga. ndeysaan kon. minal hmm. mooy di liggéey ba mu yàgg ñu dàqe la fa nga doon liggéeyee. bala ngaa jàmbat ak a seeti meer nogay. Hmm. neel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mu woyof. ndeysaan. anfusi. nga faatule hmm. ku si ci yow ku baaxoon ci yow hmm. ku bëggoon balaa dara xew neel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hmm. nit ñi nag foofu dong lañ ko jëfandikoo ndeysaan penc bi faatu rek kay tax ñun inna lillahi ndeysaan waaye sunu borom ne nag juróom yooyu yëpp musiba la ma ngi ko jeexale ci wa samaraati ndeysaan mooy bay ba noppi dara meññut delloo lii fi ci yàlla rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax da nga fi nekk moo tax ngay tala bay ñu mhm. ñuy bay ci seen koo bayuñu tey kon ñett yooyu juróom yooyu wala juróom benn yëpp bu ci nekk bu xewee rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo la cay génne mhm. wa sukkuraan tabarkalla mhm. tabarkalla kon yaakaar naa mat na mbakke mat na mat na am na solo jërëjëf Abdourahmane te marché HLM du nuyu waa HLM yëpp allah ku ci topp Seyxuna Silla Seexuna Sylla Oustaz moom ci alxuraanul karim la waat aaya wala boog suuratu Saad euh, moom la joxoñ nee na aaya 24 jàng bopp aaya ja ah, bopp aaya mu jàng na Oustaz mooy aaya 26. bopp aaya ji mu jàng mooy tolloog aaya 26 fi suñu borom subhaanahu wa taala di waxee naan yaa Daawuda euh, wala yaa Daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna annaasi bilxaqi wala tattabihi lhawa fa yudillaka an sabilillah mhm. inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun sadid bi ma nasu yowma alxisaab waaw sunu borom dafa yónni woon ku ñuy wax daawuda daawuda nekkub soldaar mhm. jóge ca soldaar ga nekkub yonent mhm. ndax njàmbaar ga ndeysaan ah moom militaire la njëkk a doon <laughs> a <laughs> te keroog ba muy dem ci armée ga ne day nekk militaire. Mm-hmm. xeeb gañ koy xeeboon tax dañ ne ko saawaay. Mm-hmm. ah ab taux. Mm-hmm. waaw. <laughs> ab dañ ko naroon libéré. waaw <laughs> léegi nag mu volontaire dem. tax mu mu mu gañe xare ba. wa qatala Daawuda. Jaalut Jaalut. moo indi solution. <laughs> ndeysaan. ñu ne ko ah boog yow kay ndekete. ah waaw yow kay ngan nga. ku la yéegal nga yéeg. ndeysaan ku la jàppale nga yéeg. léegi nag loolu la ko suñu borom ndox na ko yaa daawuda maanaam bi bi bi ko yàlla defee loolu nag daawud dafa nekkoon ab attekat ndeysaan procureur la wala bi siis mën a atte lool atte bi muy atte nag comme dafa mokkal yëf yi maanaam attekat ak avocat sañ mbàkkee werekaan la ñuy doon waaw werekaan mooy werekaan la doon werekaan mooy lan mooy noonu ko El Hadj di defee waaw maître El nga xam ne mën ngaa jël. ak a <laughs> mais nag nee na nee na comme comme yi bëgguñu ma nekk député ah waaw baax na. mu ngoog léegi nag ku mel noonu. nga ñëw ci kanam. avocat wala ba nga ñëw ci kanam juge bi. ndeysaan pour pour pour pour nga jommal ko day yomb. Mhm, ndeysaan. Daawuda toog di àtte ñaari gaay daal di ñëw. Mhm. jën waay na ko wax ji na ko. inna haada. Mhm. axi. lahu tisuna tisuna naaja. wallaay ndeysaan. <laughs> bi affaire bi jeexee rek. Mhm. mu ne ko laxab dalamaka. wallaay. au lieu que mu ci des. waaw si. sunu borom ne ko déet. laxat droit de réponse de fara am. wallaay laxat salamaka. bisu ani naajatika ilaa naa jeex na. déglu waa ji. waaw. yaa Daawuda mu ne am ne ko innaa jaalnaaka xalifatan fil ardi. Oh. faxkum bayna naas bil xaq. te del acte dëgg. waaw bu ñaar ñu wutee kenn ki tooñ ka ca des. ne dañ ma tooñ. Hmm. déglul kii. Hmm. soo paree déglul keneen kii. kon yàlla cour la ko doon defal. waaw en tant que Daouda magistrat chef de l'état buy àtte. Hmm. léegi nag fa xarala raaki an. wallaay dina këpp. wallaay mu rot ne ko waaji ne ko waaji moom a daaneel. Oh. ni ma ko joxe la ni ma ko joxe la ni ma ko joxe la ndeysaan waaw ndeysaan cey <laughs> ndeysaan est-ce que daana dal Serigne Saliou bu nit ñëwee di boole wax a wax a wax rek boo moytuwut mu jël ay sanction nga doon boole waaw buñ ko waxee ne ko moo ne mu doon wax de demewut noonu leeralal ko mu ne damaa yaakaaroon ne maanaam ni mu toogee ni mu doon waxee rek lu mu wax dëgg la <laughs> benn doo ko def xam ne yow moom jàpp na ne kii daal moom du fen loo wax dëgg la ndeysaan ndeysaan est-ce que <laughs> waaw ku dul wax dul dëgg day neex a nax waaw ndeysaan ku dul wax lu dëgg mhm. day neex a nax ndeysaan gis nga maa ngi maa ngi am benn jotaay bu ma bokk démb oustaz ci benn waxtaan mhm. benn mbokk bu baax nee na sëñ Saliou ci mbaaxam mhm. demoon na ba ñu daan dóor xale yi ci ci daara ji danañ ko ci ab xale saagaate te mënoo fayu bu ko dóor ñool boole maag moom xoolal ko. waaw ah, ndax bañ nga dóor. bañ nga dóor moom man koo régler système am. moom man koo suy. am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf mbokk euh, si la laaj bi am na solo. Mhm. oustaz Alioune dafa mel ne Baye Fallou. oustaz Alioune Sall Baye Fallou Alioune Sall waaye ñu jëkk fa ci yëmbal oustaz sa soppe yooyu. sopp naa leen ñoom ñëpp rawatina seen njiit alaaji mhm. ak ñu ko jàppale ñoom Babacar ak ñoom mhm. Omar ak ñëpp rek tabarkalla xalifa waaw ku lim jum waaye ñoom ñëpp rek tabarkalla yàlla na yàlla jàppale leen te aar leen ndax ni ñuy def ci sécurité sécurité bi ñoom rekk ko man wa shukran daam gay oustaz Mbacké dafa alaaji daam gay gol tàppe moom itam oustaz euh, dafa indi ay siyaar rek man nañ ko waxee ak rafetlu li nga xamante ne mooy mhm. taxawaayu jotaay bi ak waxtaan yi nga xam ne moom lañ doon def mhm. tubarkalla oustaz ci Ibou Ngole Mbengue itam suñu wëlëre woowu yëmbal yëmbal mhm. Euh, moom tamit suma xarit bu baax la. yal na yàlla dafa ko jàmm te may ko ndam. suma conférence bi garam bu mag la ko xotti. ñëw ko ba ñëw loos ko. moo la ab yow. Mm, waaw ni ma solo. yal na yàlla barkeelal ko. yàlla tubarkalla taalibe Cheikh soppee Cheikh Sidil Maxtaar. ndeysaan moom Oustaz dugg na yaramam daw ba mu mujj tuur ay leer. Mm. waaye dawaale yaram yu bari. Mm-hmm. ndax ni mu ubbee rek wane ne moom day taalibe Cheikh laa ci péete. Mm-hmm. waaye nag Sëñ Sidi Muxtaar sopp naa ko lool. ndeysaan ne ñu nag euh, domaine yàllaa ji ak wéetal yàlla gi loolu dama leen koy bàyyee ndax seen domaine la mm-hmm. waaye nee na moom bokk na ci li ko marqué mooy sëñ Sidi Muxtaar bu masaani ñëw ba toog tekk jooju mu naan tekk ak yar beeg melokaan boobu muy nee na loolu daal yéem na ko nag ñëpp dana yaru ñëpp loolu loolu ab ab yar la ci nit mm-hmm. ku dul yorub yar mm-hmm. dana masam ay dawra yu ñu daan def fii ci grande mosquée ustaas bi yoroon tarbiya maanaam dafa mel ni moom yaram bi dañ koo tarbiya moo ñu waroon moo ñu waroon matière tarbiya waaye yàlla daf ko baaxee ba moom ci boppam doxin weeg waxin weeg yooyu dafa fàtt tarbiya waaw loolu yàlla da koy def. dëgg la ma tax sunu mag ñi léeg-léeg gis nga xam ne kii toog moom donc mën nga caa defaroo. ndeysaan daa mel ni ñu am dara wulaayikal xawmu. laa yafqaa jalisuhum. jeex na is yaksibuuna al muridiina saadaati. mbokk ndeysaan. ci ñooñu la bokkoon. <laughs> waaw loolu borom jumaa ji. <laughs> wallaay ndeysaan. ndeysaan <laughs> acca. mi si Abdou Samad. maa mi si Abdou am na solo oustaz ci loolu dafa maa ngi wax ne dafa mel ne ñi am ab cër ñëpp maanaam dal googu day ne ci ñoom booy seetlu oustaz baj baj ji ñi nga gis ñuy toog di juut juuti baj baj baj lu ne ñu dugg ca day mel ni daal <laughs> waaw dafa am bés euh, xaj di dox ba mu yàgg mhm. mu taseeg nag mhm. nag di ko yedd mhm. hmm? waaw nag ne ko yow yow xaj kenn mënu fa jël timis wala gee waaw ngay mbaw mbaw yi xanaa xoolal sama ginnaaw gi waaw <laughs> ñaw sama benn pooj sama sama benn tànk bi ëpp la <laughs> usaa nga ne nu mu ko waxe <laughs> déedéet waaye yaaram <laughs> yaa ngi mujj reer yi waaw <laughs> yaa ngi ceeb xam nga daal da koo gestu joxoñ baaraamam bi da ko xanaa xoolal sama ginnaaw waaw ñëw maa la man fuuf ëpp la fuuf mm-hmm. te du ma sa mbamboo ji sonal nga ñu waayu wallaay ndeysaan moo tax jubóoguñu ba démb déedéet déedéet xaj na jël ah wala euh, parce que nag nag li mu ko wax dafa garaw maanaam li fees ba ne dégg sëñ Mbàkke mm-hmm. du bari bi yëngu jeex na du bari foo gis nan cell rek waaye bërigu bi dara ñu mm-hmm. ko bërigu ci télé bi nga xool ndeysaan est-ce est-ce que. xërëng xërëng jaag ñoom seen yooyu. ndeysaan. Euh, sa Seck benn benn benn politicien la. ndeysaan ndeysaan ko yàlla yokk ba amiin yaa garab gu màggat bay daanu. Hmm. nee na jirim ja. waaw xax xax ji xax xax. <laughs> day wan di xax xax xax ah <laughs> jooju misaal mu yéeme la oustaz. <laughs> barkal en tout cas yéeme na de gis nga ñoom ba ci seen maanaam ni ñu mën a dégloo nit. Mm-hmm. waaw suñ kilifa yi dañoo mën a déglu. waaw léeg-léeg nit di wax lu ñàkk solo yow mi toog sax da lay waaye ñoom dañ naan teel rek. déglu déglu feeg mm. daaneeloo du ñu wax. tey duñ def fis maanaam fes buy wane ne bëgg nañ nga daaneel. parce que déglu moo gën a jafe dégg. waaw. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. xam moo gën a xam xamle moo gën a jafe xam. Mm-hmm. jàngale moo gën a jafe jàng. ndeysaan ndeysaan. waaw moo tax seen cell ju seen dégg jooju. waaw ndeysaan jàkkil ko soos. ba noppi nangu ñu leen di nax nag. waaw gaa yi wër leen di dóor rek. moom sëñ bi lu ne nga wax ko mm. dóor a dóor ba génn jàpp ne sëñ bi yow ngaaka la yëgut li xew fekk waaw loolu la sëñ mbay si Mansour te ay nax boo xamee li la waaji di nax mu lay nax day neex daal boo ko xamut lay garaaw boo ko xamee mag mu xamee na xam di ca tàbbi ak a neex <laughs> a neex maa ko naxee lii daatee sëñ Mbaye si Mansour li mu nettali waaw ci eh, sëñ Fall waaye ñu woon ko mën a tuddee doom waaw waaw bu ñu yeggee mu ne sëñ Fall rek wuyu <laughs> su ma sëñ Fallou wuyu mu ñu naan Fallou Fallou xale bi ne tekk rek Fallou mu ne tekk rek. waaw ah, Fallou da nga wuyu mu ne ko tudd ma Fallou kat. ndeysaan sëñ Fallou ne ko tuddal Fallou ba dem waay. sëñ Fallou moom leneen la. bokku ci. Eh, tuddal Fallou ba koo jàpp. waaw jàpp ko am pour mu ñuy tere. ndeysaan. suñ Fallou moom pour mi. ah. <laughs> mu xumb de. ñu woote leen sëñ Fall sama pën waaye <laughs> waa ji ñëw si <laughs> mu ne ko. salaw de eh, lu may doon pën. Fall moom itam pën waay. ndeysaan suñ mbàkkee. ñu leen ah. oh, la. Eh, moom ma lay wax moom suñu soin waaw dafa am ku ñëw ci moom ne damaa war a ñibbi Burkina Faso. waaw léegi nag di dajale paas paas bi te mat. ma ñëw Touba daal kër yi ma dem yëpp ñu ne ma demal sëñ Abdou Samad Soin boo fa demee sa soxla dana faju xam nga dafa xaw a sensible gisoon nga ko noonu waaw sëñ Samad daana ko ay bokk ko mu toog nag ku ñëw daal di koy nuyoo cinquante mille mu daal di koy woo ci mbooloo mi fekk waajaa ngi añ mu ñëw mu ne ko jàppal ci lii xam naa matut paas Burkina waaye nga mën ngaa dem wéy di añ ñu xaaraale ba xam leneen dina ñëwaatam déet waa ji tàmbali añ sëñ Samad ne ko daane ko sant wa <laughs> noo sant sax waa ji ne ko njaay <laughs> mu ne ko Ndiaye ak Burkina Faso. Ndiaye ak Burkina ak sa olof yi set yii ma ma tàmbulee bëgg bëgg koo woon ko waa jii da lay dóor mu tàpp tàppal ma ne ma silla moom kay na Abdou nangu ko ko nax rek <laughs> na Abdou nangu ko ko nax rek baal ma nangu ko ma nax rek. <laughs> jeex na mag moo xam ne xam ne dafa neex. walaay ndeysaan macha allah waaw xam naa ne ci tax bi waaye Ndiaye Burkina Faso moom. Eh, wax dëgg yàlla moo sant mu waaye bu Oustaz Dame la Diop la am Ndiaye na dóor loolu. aywa Imaam doxal ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf taal taal bi Cheikh te macha allah xaw nañu yóbbu sax ñëpp xaw nañu tooyal suñu wallaay wallaay ndeysaan am na ko dugg ci digg bi wax lépp tur bi mais moom tam suñu mbokkum gambien moom tabarkal la ñu koy nuyu ba nuyu waa Gambie gépp madame Jongo la ki duggoon te euh, waaw madame Jongo voilà madame Jongo moom moo indi ziar yu rafet yooyu la mm-hmm. ak ñaar moom it xam na noo yóbbu ndeysaan mm-hmm. ndeysaan sa jigéen ñi tabarkal am na ci ñu rafet xol waay ndeysaan noonu la noonu la waaw tabarkal la Wally Seck ma ca Gambie Wally Seck mi ca mi ca waa nekk Suède ah. mm-hmm. nekk Suède nekk di Gambien Gambien moom day indi ay laaj yu bari <coughs> nee na dafa gis bu ñu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñu ni bëggoon na xam mooy sallallahu alayhi waaye dafa gis tam bu yu génnee àddina nitu diine ñu ne yàlla na yàlla tas ci barkeem mu bëggoon na xam loolu jërëjëf ci laaj bu am solo boobu ñun hmm. sunum réew dafa naqaree dunde neex a faatoo hmm. waaye sunuy sëriñ amuñu sansu ñaanal leen hmm. ndax isi duaaw yanfau maytan fil xubur moom cheikh maam maam maam suñ tubaa ci masalikul jinaan ma ngay wax ne dee leen ñaanal néew yi ndax ku nekk ci biir xabru soxla ko mais ñun sunu sunu dëkk bi sëriñ Cheikh mag ñi amuñu sens boobu dangay wax yàlla ñu yàlla taas ci barkeem wala yàlla na yàlla yokk leeram yu mel noonu la ñuy wax nga xam ne doo doo wax ne yàlla na ko yàlla yërëm boo ko waxee sax ñu defee ne jaw li nga wax c'est très dangereux. boo ne rahimahullah ñu ne la tuub. Mm-hmm. boo ne ko jàngal ay xooloo ñu la mukk. Mm-hmm. ñun chance boobu la tabarkal te nag noonu la war a demee. Mm-hmm. ndax yonent bi bu ñu ne Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam ji ak ñaan la ci moom. mooy yàlla ko yàlla yokk xéewal. ndax xéewal ga du doy. waaw wasallam te musal ko te muccal ko. ndax mucc yombut. ndegam ñun tamit la ñuy waxal loolu nag wax ma laa keneen waaw waaye noonu nag nooy def eh, terme yi comme ni ko suñu bàkkee waxee dañuy jékki-jékki rek ab terme xew ci penc mi te kenn du ko ñemee tere muy law di jàll rek dëgg la de muy law di jàll rek mm-hmm. waaw ndeysaan wasu koran ci laaj ba am solo bi jërëjëf macha allah macha allah <clears throat> shukran tontu yu am solo yooyu mm-hmm. eh, neen tam bëggoon na nga firi ko laqad jaakum waaw léegi comme <laughs> mil 2018 la te ñaar jot nañ koo wax. jot nañ koo laaj. Euh, nanu bàyyi ba rekk ba ci kanam. ba ñu gën a waaj waajal ko. waaw incha allah. daa am nu mu war a ñëwee. daa très bien daa am nu war a ñëwee. <laughs> mais mais mais tafsir bi euh, non tafsir moom romb nga ko. mi ngi fee. yaa ngi ci yaa ngi ci. Euh, maa ngi ci fàttali yaa ngi ci Muhammadu Rasulullah waaw maa ngi ci Fatick weesu na la xat jaagu weesu nga foofu waaw tubaarkal weesu nañ ko bu yàgg yàgg ci barki démb ndeysaan waaw ah, ndax la xat jaagu ku moo jeexal sóoratu taw ba waaye comme daañ la provoqué comme nii yem ci xocc mhm. nañ ko bàyyi rek bu nu kéenu defal ko jotaayam voilà incha allah kii mooy Abo eh, Ibou Ngone Ibou Ngone waaw mm, Ibou Ngone mhm. waaw wala Abu Kone Abu Kone Abu Kone Abu Kone jàll nañ waaw Abu Kone moo ñëw moom dafa wax lan mooy musal nit ci guddi gu jëkk ci bàmmeel wallaay ndeysaan gannaaw bi mu waxee ne guddi gu jëkk ci bàmmeel dafa dégg ne maanaam mooy li gën a metti ci àdduna gën a lëndëm gën a tar mm-hmm. nan lañ ciy muccee imaam waaw mucc ci mbugalum ak bàmmeel day suñ bàkkee mm-hmm. la cay defal nit mooy fii mm-hmm. la koy programme defari jikkoom defar ay relation am defar aqidaam waaw waaw ca bu defee yooyu rek mm, ndeysaan fanaan ca xabaru fanaan ci hôtel ba nooy bokk yam ci moom ndeysaan waaye dañ koy waajal mm-hmm. ndax azabul jahim moo am ak azabul azabul xabri moo am ak naimul xabr mm-hmm. xéwal nag ku ñëw suñu la buñ na laa kuy sa borom nga wax kuy sa binante nga wax bu laajee tontu yooyu yombee rek fanaan mu neex ngay fanaan. yàlla nañ ko fanaan ngeen fanaan ko. amiin waay amiin amiin yaa rabbal aalamiin yéex faa dem. yéex faa dem Amadou Samb moom. <laughs> ay indi ak ay nuyoo jot a indi ab laaj Oustaz Alioune. kon nag jërëjëf Oustaz mat na sëkk incha allah. mat na sëkk kon nag lu ci tege yéen lu ngeen a indi suba cëgee. incha allah maa ngi ci yéen yàlla Souleymane incha allah bu nee ba 22h30 dinaa fi di la saat maag imaamu Barñeeg tege imaam Mor Seck ñu waxtaan ci alminbar bu ñu demee ba zéro heure nag incha allah dina dalal suñu mbokk alxaaji Rawane Diagne ñu war a waxtaan ci Serigne Mouhamadou Mansour ak taalif bi mu taalifal euh, Cheikh Sidi Mokhtar. ndeysaan. tabaarakallaa jërëjëf kon oustaz Mbacke yéen lu ngeen ne li ci xamtu jërëjëf naa ne li ñuy indi oustaz mooy rek boo noppee ci tafsiru xuraan karim bi ak jàmm dinañ ñëwaat ci euh, ci xamtu xam naa tey mooy ñaanu sëñ Sidi Muxtaar gi rek ñu tëjee ko jotaay yi nga xam ne moom lañ doon def yëpp euh, ci ba xew-xew bi xewee ak léegi ñu tënkee ko ko incha allah dina am solo ñëpp a ngi leen ñëpp a leen di xaar ñun tam bu ñu 15 heures jotee jàpp 16 heures dinañ ñëw ci mm-hmm. moo nekk suñ 47e épisode ñoo ngi ci xaswatu badrin al kubra wa kon nag en bi nga wax ca ba nga def ca foire ba ma mënatoo ko ndeysaan <laughs> léegi na booy jàpp booy bi mm, ndeysaan Moussa moo may waaw moo mën a toog ndeysaan léegi léegi tànd lay doon la ma sa romb ñoom Cheikh Abdou ñuy football mm-hmm. ñu paas ma bal bi waaw la ma fa defoon fii ne mënatuma ko dëgg la <laughs> da koo kii da koo laal mu jóg dama ko laal mu jóg ma xëcc ko dee mu jóg ma teg ko mu nangu ma teg ba bal bi déggal la ceetit xale yi toog baa bi ñu la nee Oustaz defaatal da ngaa bañ. du ma ko defaat quoi kay dama daan ñibbi rek ñu daan <laughs> nawetaan jot ñu bëgg maa jël ci équipe bi <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi bu leen toxal seen ak déglu lu jub sax ci sunu borom lu jubut du moom nun ñi ñoo doon jéem ak jéem leen fee wóotu yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.